salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech euh, bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam euh, xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors ba léegi nag ñoo ngi ci euh, saison onze bi tey ñu ngi euh, ci épisode huit euh, alors bu leen fàtte nag ni saison onze bii nag dañu ko jagleel lépp lu jëm ci wàllum réalité virtuelle métaverse jeux vidéo ak yu ni alors nag xarala yooyu nag dafa ëmb ay mbir yoo xamante ni mbir yu bëri la alors loolu moo tax nag ñu tàmbalee ci épisode yu njëkk ya ci biir saison bi ñu njëkk waxtaan ci lan mooy image déjà waxtaanoon nañ aussi ci lan muy vidéo lan mooy 2D lan mooy 3D amoon na yeneen invité aussi ñu fi daaloon ñu wax waxtaan ci domaine yooyu noonu yëpp quoi alors euh, ba ci euh, mbirum son sax def nañ ko ay épisodes yoo xam ne wax nañ ci ingénierie de son xam naa gars yi bëgg ay rap ya film intéressé woon na leen trop quoi alors euh, tey nag tey nag loolu tax loolu yëpp nag nekk ay xarala yoo xamante ni xam-xam yu bëri la àndal quoi dafay laaj ay xam-xam yu bëri yoo xamante ni moom nga war a xam pour mun a yegg ci lan mooy métaverse ak lan mooy réalité virtuelle parce que mënuñoo tëb rek wax ay métaverse wax ay réalité virtuelle te jaaruñ ci lan mooy image lan mooy vidéo euh, ak yu demee noonu alors tey nag dañuy génn dañuy gën a xuus ci waxtaan bi wax ci mbirum jeu ak xarala yu bees yi wax aussi tamit Afrique naka la war a taxawee euh, par rapport ak mbirum euh, jeu vidéo yi alors pour waxtaan ci loolu nag dañ ci ànd ak sunu invité tey yi nga xamante ni kenn dootu leen présenté euh, seen xam-xam màcc na bu baax ci li nga xamante ni moom la ñu war a euh, waxtaanee alors ki ci njëkk nag mooy euh, Baba Dioum nekk manager Solo Sport Solo e-sport. ah nest nekk aussi président euh, Sen'Gem alors Baba ziar nañ la dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech. delloo ziar di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp kontaan ci TV bi xam naa ni. Mhm. bi ñu bi nga bi nga dalalee programme digital gi ba léegi. ak mu doon wër. pour ñu ñu def émission nga nekk ci avion yi rek kenn mënu la jot quoi. <laughs> malheureusement maa ngi ci avion yi yeeg yooyu noonu. si si waaye sant yàlla rek. Mhm. kontaan ci TV jotaay bi. voilà di ñaan yàlla vraiment ci lépp liñ ci nar a wax daal mu nekk loo xam ni dina amal njëriñ nit ñi. Mm-hmm. Euh, am avancement bi bi ay buntu daal ci ñi nga xam ne bëgg nañ ci ci investir wu daal. wax dëgg mm-hmm. yàlla. macha allah merci beaucoup Baba et je pense que c'est la première fois nga comme wax nga ko sax nga ñëw ci podcast bi franchement ñu ngi lay remercier bu baax ci li nga ñëw ci invitation tey bi nii quoi. alors suñu deuxième invité bi nag mu ngi tudd Jean-Pierre Seydou Ndaw euh, xam-xamam aussi màcc ci lépp lu jëm ci wàllum consommation vidéo contenu vidéo en ligne vidéo yi nekk ci internet bi ak yu dañuy faral di wax nag su ma nee vidéo ñu ne ma non vidéo du wolof <laughs> alors moom nag xam-xamam dafa màcc loolu mais aussi ci àll wàllum jeu yi mu ngi liggéey fii nii ci Sonatel alors Jean-Pierre nuyu nañ la bu baax daal jàmm ci podcast Wolof Tech ok euh, di la fay euh, El Hadj euh, mm-hmm. di la remercier aussi mm-hmm. si invitation bi mm-hmm. Et puis très heureux, hein, heureux de pouvoir échanger autour euh, mm -hmm. du sujet du, du, jeu vidéo avec vous et les invités. Mhm. Mhm. Merci. beaucoup Jean-Pierre. Moi aussi, c'est la première fois que ñëw ci podcast. Mais ça sera pas la dernière. Quoi. Ouais, Mais nous avons une affaire de petit parce que ça va aller baax Alors, si nous avons un invité, je vais vous dire que c'est un développeur. Là, tu vois. mais même bu fekkee ne sax léegi fonction yi gën nañ nekk ci yenn affaire yi bëri lay gën a gérer mais à la base développeur la et tout ça mu nekk cerno euh, Ndiaye nekk koo xamante nii mu ngi liggéey fële ci Kayfo Thierno ziar nañ la bu baax dalal jàmm ci podcast Wolof Tech delloo ziar El Hadj merci beaucoup si invitation bi di mm-hmm. nuyu invité yëpp. Mm-hmm. merci beaucoup may rafetlu bu baax jotaay bi ak mm-hmm. merci beaucoup Thierno allez kon nag dañuy dugg directement ci euh, épisode bi nga xamante ni moom la ñu nar a dugg tey mu waxtaan ci mbirum jeu euh, ni mu amee doole ni mu amee solo mais aussi Afrique aussi ban tànk la ci war a taxawee naka la ci war a taxawee ba nga xamante ni dinañ ci mën a gis suñu bopp ci baax a baax allez ñu dem ci épisode bi. alors su ñu ne nag euh, jeu ñëpp xam nañu ne yàgg na ci àdduna trop trop trop fii ci Afrique moo xam mu nekk Europe nekk États-Unis asi yàgg nañu jouer alors nekk na mbir moo xamante ni nag mën nañ nañ sax dafa bokk ci culture euh, continent yi ak euh, dëkk yi quoi parce que da ngay gis jeu yoo xamante ni dafa dafay transmettre culture nit ñi wala di transmettre ay éducation ak yu bëri Euh, di boolee tamit nit ñi parce que le fait que ngay jouer ak ay nit dina permettre ngeen am benn interaction ngeen mën a toog di waxtaan toog teg ataaya ji xam nga mën na mu ataaya moom tu vois ah, mën ngeen teg ataaya ji di jouer en même temps di jàng di jeu am na lu mën a boolante nit ñi ci lu bëri bëri bëri bëri bëri alors suñu ne jeu aussi nag tamit dafa ëmb euh, c'est-à-dire dafa am ñaari façon jeu man ci li ma xalaat c'est-à-dire bi nga xamante ni dañ koy def physiquement nga dem ci terrain bi di football mais bi nga xamante ni nag nouvelle technologie avancé na ba toll fii tey lépp lu ñu doon def di génn di ko rayante ci biti mun nañ am possibilité avec benn écran ñu toog di jouer toog aussi di jouer ak ñeneen ñoo xamante ni sax nekkuñ ci même bërëb bi donc loolu yëpp mu nekk yoo xamante ni dafa am solo loolu moo war a tax tey ñu waxtaan ci mbirum jeu pour que nit ñi xam lan mooy jeu ak aussi euh, fan la ci Sénégal toll ak yan jéego lañu ci war a def pour gën ko améliorer mais aussi Afrique nag lañ war a taxawee ci jeu boobu noonu alors pour tàmbali nag dañuy ñàkkee ci Jean Pierre euh, pour euh, waxtaan pour jëm la laaj exactement yow naka nga ñu mun a expliquer déjà euh, lan mooy jeu vidéo Euh, dañuy dégg aussi ñu naan jeu online ak jeu bi nga xamante ni yow mu ko joué yow kenn lan mooy jeu vidéo ak lan mooy njëriñam euh, ak aussi télécom yi xam naa nag dama la boole yu bëri ci même question bi. waaw mais amul problème bi yaa na. waaw orange xaw na yaatu xaw a ngi leen <laughs> na xaw na yaatu quoi. xaw na yaatu donc ah, waxal ñu exactement lan mooy jeu ak tey télécom yi naka la def ba jeu euh, tey nekk loo xamante ni dafa am doole trop rapidement ci année yi quoi. ok ok merci donc jeu benn genre mun nañu wax ne que benn divertissement la ah. mais l'avantage du jeu c'est que divertissement la dans le sens où c'est pas passif. kuy jouer am na benn euh, benn genre benn input bu muy apporter. pour pouvoir euh, pour pouvoir gérer en fait ay actions par rapport euh, à, un, à, à écran quoi. Euh, donc c'est ça euh, disons que l'utilisateur donc dafa am benn interface utilisateur bu muy utiliser comme une manette. euh, et avec les actions qu'il fait sur cette interface d'utilisation, permet euh, au protagoniste qui est dans le jeu, jeu bi mun a mun évoluer. Donc c'est c'est un peu ça et donc euh, visuellement on a des réponses par rapport aux inputs qu'on qu'on qu'on qu'on amène loolu mooy euh, loolu mooy jeu vidéo. Euh, donc bon il y a différents types de jeux vidéo donc euh, déjà il y a les jeux qu'on appelle solo mooy bi nga xam ne bon voilà kenn nit moo koy moo koy jouer voilà. am na multijoueur tamit li ñuy wax multijoueur mooy maanaam bon plusieurs joueurs mun nañ jouer di di interagir voilà il y le jeu aussi euh, bon qui s'est beaucoup développé aussi ces dernières années donc euh, le jeu en ligne donc qui permet euh, via une connexion internet hein euh, ay nit ñi nga xam ne nekk ci même bërëb bi mun a interagir di jouer à di jouer euh, di jouer à distance et dans dans le jeu vidéo après maintenant il y a plusieurs types de jeux am na yu ñuy wax ay jeux de rôle jeu de stratégie, jeu de simulation, action, sport, vraiment il y a euh, tout type de tout type de Maintenant, si utilité bi nak mën nañ nekk bon globalement quand même bon à la base c'est vraiment bon un divertissement. C'est pour pouvoir bon voilà se se se la daal à la base bon voilà. <laughs> Ouais. Après bon voilà, il y a aussi euh, l'éducation, mmh. c'est un jeu comme c'est il quand même pas mal de du côté éducatif aussi, mmh. le développement des compétences, la socialisation aussi. Mhm. le jeu en ligne a permis euh, vraiment de créer des communautés. Bon, des jeux comme euh, Minecraft qui ont permis vraiment de développer de, mmh. de grosses communautés de, de gamers. Si, si. Et, donc, donc, donc voilà quoi. Et bon, mmh. pour parler en fait un peu de l'influence, euh, bon, influence télécom bon, mhm. c'est mmh. la connectivité hein, qui s'améliore, ouais. la rapidité aujourd'hui de la connexion mhm. qui a permis euh, le développement du jeu en ligne, mhm. qui demain permettra même de faire du cloud gaming. Euh, voilà, euh, bon, euh, les évolutions aussi graphiques, avec les nouvelles technologies, mm -hmm. la réalité virtuelle qui arrive, mm -hmm. l'intégration aussi intelligence artificielle bi ñuy wax. ah ouais. si j'ai pour développer en fait un peu voilà mhm. la complexité des jeux et développer en fait un peu les interactions. le dernier point peut-être yi nga xam ne moo xaw a peut-être révolutionner en fait un peu le jeu c'est tout ce qui est euh, ce qu'on appelle microtransaction microtransaction loolu moo xaw a tey tey tey bon l'industrie en fait un peu du jeu vidéo mm-hmm. donc c'est-à-dire surtout dans tout ce qui est euh, jeu mobile mm-hmm. donc possibilité bi nga xam ne joueurs yi am nañ ko pour mun a par exemple pour évoluer dans un jeu euh, faire des petits achats in-game euh, qui permettent de pouvoir évoluer dans le jeu. Donc ça, ça, ça s'est vraiment, ça vraiment développé, hein, okay. avec des jeux comme GTA Online, etc. Mm -hmm. Euh, et aujourd'hui aussi, euh, on parle aussi de euh, game as a service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, da ngay am benn jeu gratuitement, mm -hmm. tu accèdes gratuitement, mais après léegi, plus tu veux avancer ou le plus tu veux faire évoluer ton expérience de jeu ou ton personnage, tu payes. Donc, c'est les mm-hmm. jeux qu'on connaît tous, comme GTA Online, Fortnite. Mm-hmm. Donc, voilà, en fait, un peu. Okay. Pour euh, parler, en fait, un peu de ce. Ouais, mais c'est, c'est, c'est, cool, parce que, parce qu'en fait, mm -hmm. euh, aspect Bob c'est hyper important. Moi, bien que moi, télécom. Mm-hmm. Alors, nous faisons, tay, bien que accessible, tu, tu, nous, quoi. C'est-à-dire, tay, euh, Euh, mun nga toog di jouer di jouer ak keneen tu vois mu nekk online man affaire boobu dafa comme ni nga ko waxee buloo sama may ah, na tu vois parce que man bu yàgg bi may nekk di gën a jouer yow rek yaa daan toog di tey da gis booy di jouer léegi nii tu vois ma gis ko mu man ak ma benn xarit nekk fële mais après ne waaw tu vois mais donc du coup tey ah, te loolu yëpp tey bu amee c'est tey internet euh, nit ñi jot nañ ci. te sans internet je pense que loolu dina doon compliqué trop je pense pas que tey nit mun na branché fii câble am tey yóbbu ko ci kër gi nekk ci voisin bi fële pour jouer ak moom tu vois dina compliqué donc du coup je pense que tey télécom am na benn rôle bu am solo buñ ci buñ ci joué alors euh, alors comme ni ñu koy waxee faral di waxee aussi saa su nekk Sénégal kenn demul ñu descend Sénégal lu xew ci àdduna bi ñu ngi ci biir tu vois c'est des fois daf may étonné sax damay dégg euh, yàgg na trop bi ma njëkkee dégg ñu def affaire bitcoin Sénégal ma ne che Sénégal la ñu ngi ci lépp ma dégg association bitcoin Sénégal tu vois yàgg ti tu vois. donc du coup euh, comme Sénégal nag ñu ngi ci lépp à chaque fois technologie bu génn bees rek wala euh, affaire bu ñëw rek di nga gis ay mouvement wala ay gars yoo xam ne dañuy def ay initiative pour fexe. non seulement ñoom ñu jàng ci affaire bi gën ko comprendre mais aussi surtout li ma gën a intéressé mooy partage bi ñuy def ak nit ñi ko à chaque fois da am xam-xam bi mais dañ koy jël di ko partager ak ñeneen yi alors ci loolu nag ah, ci la seen Game juddu je sais sûrement tu vois alors Sen Game nag nekk benn ah, communauté boo xamante ni ki ko dirigé tey mu ngi fii toog muy Baba Dioum ah, Baba Dioum en tant que yow président Sen Game naka nga gisee tey wàllum jeu bi fii ci Sénégal ak seen association boobu lan moo nekk rôle am lan moo nekk ay objectifs objectif am je sais que am na aussi solo sport yu demee noonu quoi allez vas waaw solo de moom am na solo. comme ah, ni nga <laughs> waaw waaw waaw mu nekk mu nekk question bu bu bu am solo. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa dafa am benn moo bu moo xam mënu ma ko wax nag ci wolof bu tudd fascination. fascination boo xam ni moo ñu moo ñu dugal ci partage ci yéem yéeme bi yé bi jeu vidéo yéeme. parce que damay commencé waat ci définition bi pour faire ça pour compléter li li li gens wax wax dëgg yàlla définition bu am solo la ci joxe maanaam dañoo gis musique mu ñëw ngay takk sa def ko say écouteur wala nga takk saal sa rajo di déglu looy déglu la information booy jot la ñu tombeek euh, télé looy seetaan la mu amoon tamit lu yéeme parce que da nga naan gis ay image gis ay couleur mu ànd ak son tamit mu nekk multimédia maanaam ñaari média xarale yu ñu boole jeu yu ñëw indi lu garaaw lu ñuy wooye interaction jokko mm-hmm. jokko mm-hmm. communication ah indi lu gën a garaaw encore lu ñuy wooye objectif maanaam yow toogoo di jouer pour jouer rek boo duggee di dawal benn oto dafa am foo war a yegg booy jouer Mario da nga war a def ay objectif ay affaire ay points yoo war a di attendre ba jeexal jeu bi loolu nekkoon lu yéeme donc ñun dañ daan toog bi ñuy nekk xale di jouer daan jeexal ay jeu wala ñuy càng ci ay jeu li ñu daan gën a jaaxal mooy fan lañ koy waxee <laughs> kan la ñu mun a waxtaanal léegi lenn moo daan am soit comme ñun parents yi dañu doon bàyyi ñu euh, ba école ñu dem école jéem a jokkoo foofu des nga tombeek ñoo xam ne ñu ngi joué comme yow des fois nga tombeek ñoo xam ne joué comme yow comme man nag sama début nekkoon naa privé après ma dem public public gi moom daana tombeek ñu am peut chance boobu noonu yàlla daf ñu suturaal ñu teel am ordinateur. si si si si donc euh, paa bi moom dafa bañoon console moom parce que nee <laughs> console doo jàng mais xamul woon ñun. Ah. teeloon nañu wut suñuy. <laughs> affaire yi suñuy <laughs> suñuy suñuy yoon. xam nga pour utiliser. télécharger ay jeux ci ordinateur bi. ko utiliser daal léegi adduna euh, di dox. adduna mm-hmm. di dox àdduna di dox ba ma. Euh, jeexal samay jàng sama jàngum ñu ñu koy waxee sax mm-hmm. étude collégiale lycée et cetera mm-hmm. dugg université duggee université tombé jamonoy Facebook Facebook xew groupe bi commencé am ñii di créer ay association di dajee def ay rencontre parce que virtuel bi rek déjà rek Facebook révolution la réseaux sociaux ah, xaw ma sax ñu ngi koy waxee ci wàll waaye xam naa réseaux sociaux la <laughs> léegi daal euh, ñun tamit ñu ni nañu créer suñu groupe di waxtaan ci jeu vidéo mhm. léegi bi ko créer commencé waxtaan ci jeu vidéo li ñu gënoon jaaxal mooy dañoo demoon ba nekk ay 2000 ci biir groupe bi ku ne di mhm. wax xam nga nga ah doon jàng xam-xam gu bëre ci nit ñi ku nekk ñëw di joxe xalaatam ci benn jeu naa la est-ce que joué nga jeu est-ce que def nga lii est-ce que def nga lee ñu ne daal lii <tsk> ñu ko yemale fii daal bàyyi ñu jéem a xool est-ce que mun nañu wut pexewu créer association ci la yàlla def ñu créer association Sen Games en 2011 onze lañ ko créer donc Sen Games aujourd'hui am na am na euh, fukki at ak euh, ñett daanaka donc yàgg na lool c'est que léegi xam nga solo moo xew ñëpp naan solo solo mais xaw nañ yàgg daal Euh, bi ñu commencé nag activité yi premier objectif bi ñu njëkkoon am mooy ñi doon joué nii yëpp est-ce que duñu organiser tournoi dajaloo ñëpp léegi euh, ñu commencé woon dem ci salle de comme naturellement salle de jeu bëri woon na Sénégal <coughs> bi ñu commencé di dox dox jokkoo ba dem euh, li ñu doon gën a jaaxal nag mooy dañ doon dem di distribuer ay prospectus daal maanaam ay kayit yu ñu doon joxe pour joxe ah. heure beeg yooyu noonu yooyu bon ñenn ñi gëmoon nañ ñeneen ñi gëmuñu woon mais problème bi moo nekkoon convaincre nit ñi maanaam vraiment dalal seen xel ba nit ñi ni ah waaw lii événement la buy am dinañ ñëw fekke ko. Mhm. mu xawoon metti loolu bi ñuy soogay door mais yàlla def sutura. 2000 euh, su ma juumul 28 novembre 2011 la ñuy soogay organiser suñu premier événement CICES. 28 e ah novembre 2011 yaakaar naa Seneweb sax bindoon na ci article. mi lu yàgg na de. yàgg na trop. événement bi benn euh, tournoi la woon ci benn jeu bu xaw a siiw Sénégal jeu football bu ñuy woowee PS daanaka ñëpp presque joué nañ ko ñu bëgg football ak yooyu noonu. Euh, amoon nañu environ trois cent joueurs yu participer woon donc euh, ñetti na la trois cent nu ñu koy waxee sax ci wolof <laughs> ñetti waaw daanaka téeméer lu yegg foofu daal joueurs yu participer woon ak public ñu indi woon aussi benn artiste bu nekkoon parcelle parce que temps yi parcelle laa dëkkoon pour jéem a allier vraiment euh, alentour yi daal que ça soit musique show yooyu noonu yëpp daal mu nekkoon événement bu réussir bon même si bon financièrement aussi gagné wuñ ci comme ni ñu ci gagné woon ak yooyu noonu mais réussir bi mooy vraiment am nañu ay nit nit ñi wuy si nañ ak yooyu ñu commencé aussi continuer varier activités yi daal mais liñ ci gën a jàngat daal ci ci lu ci lu ci gàtt mooy euh, création association bi bi ñuy samp samp association bi bi ñu commencé am staff donc équipe bu ànd ak ñun di liggéey ak ñun ci affaire bi bi ñu commencé tamit di organiser ay événement lañ gis ni ndekete am na ñoo xam ni jeu vidéo bi jaral na leen ko am na centre d'intérêt te am na fu ñu mën a yóbbu parce que bi ñu commencé liggéey gisoon nañu am na ñenn ñoo xam ni dañoo gënoon xarañ ci communication am na ñu gënoon xarañ ci marketing bi am na ñeneen ñu gënoon xarañ ci logistique bi maanaam euh, matériel yi ñuy indi console yi ak ordinateur yi ñoom mënoon nañ li ñuy wooyee branchement gi. Mm-hmm. amoon na ñu gënoon xarañ aussi ci ni euh, ñuy waxee management maanaam nan la ñuy mën a def ba kii def lii diw def lii diw def le man jamono jooju maa ngi doon jàng communication dama jàng communication moom laa am peut-être li euh, ñu koy waxee sax lijaasa. Mm-hmm. lijaasa mm-hmm. communication laa am. et mais après daanaka management ñëw na après. au fur et parce que avant nekkuma woon président 2011 bi ñu koy créé ba 2015 nekkuma woon président après ci la ñu yàlla def daal ñu changé staff bi ñu changé staff parce que euh, xam nga man nag damaa yàgg di ànd ak ñu ma mag <laughs> <laughs> parce que dama ci doon jàng lu bëri. et comme lii ma daan wax ak. li ma daan bëgg di waxtaan ak yooyu loolu ñi ma mag rek ñoo ma daan dégg di ma <laughs> comprendre. moo moo moo moo taxoon daal mais bi yàlla defee ñoom ñu am jabar. am doom am ay liggéey ñu affecté leen fii yooyu noonu ma ni daal lii suñ ko bàyyee du baax. Ah, donc 2015 nekkoon na période bi am association bi amoon na ay jafe-jafe. ci managérial maanaam ci euh, euh, gestion wu nit ñi daal mu mu mu aajo woon ñu wuti équipe bu gën a ay xale. yu xarañ yu dynamique ñoo xam dañoom am pas-pas euh, yàlla suturaal ñu bi ñu defee euh, benn publication ci réseau yi expliquer que dañ bëgg a recruter staff et tout am ñu ñu wuy si léegi nag loolu moo indi beneen dynamique mais dynamique boobu dafa àndoon ak tamit internet développé woon macha allah parce que bon avant c'était un peu difficile li may wax sa jouer en ligne bi metti woon trop mais bi internet bi ñëwee on a commencé à voir euh, lan la waa Afrique di def ñu gis waa Ghana gis waa Nigéria gis waa Côte d'Ivoire ne ah ñun Sénégal nekkati ñu ngi buux waaye gars yi ñoo ñu gën a sore de faaw ñu wuyu ci loolu nag gis gars yi def événement yu mag ñu gis ay Coca Cola gis ay marques yu mag ñun daal jot nañu kii. Ah. mais ngeen yëngu quoi. période 2011 2015 bi lu tax mu metti yoon mooy làmb ji dafa amoon doole Sénégal. ah football gi amoon fu mu toll. donc sponsor boo dem fëgg yi xam naa. làmb bàyyi li gënal waaye Sonatel ak Tigo ah. xeex nañ ba sonn ci. <laughs> <laughs> daanaka ci affaire lamp ji. pour ah voilà contrat ak yooyu noonu. Ah, ah, donc boo demaat fëgg naa leen eh man association la jeu vidéo la la non grand yow moom la ngay xaar quoi. <laughs> <laughs> mais li ma doon wax sànq ci ci ci ci tey. ci patience ak ci mm-hmm. Mm-hmm. vision. Mm-hmm. cest à lii am na solo trop mais du léegi lay dem. mais li am solo mooy nañ ko entretenir. donc ñun dañ doon sàmm communauté bi. di nekk ak ñoom bu ko aajoo ñu def événement. bu aajoo suñu poche ñu def ci suñu poche def ci suñu ñàkk def ci suñu kii yëpp. ba mu sotti mais xamoon nañu dinañ yegg fenn foo xam incha allah nit ñi ñoo fëgg suñu bunt ni ñu ah lii moom vraiment foo ñu jóg ci waaw kon xaaral ma yebale waxtaan bi foofu noonu mhm. nañ fi toog di waxtaan ba deux heures du matin euh, du doyal quoi mhm. parce que xam naa ne li ñu war a waxtaan aussi ci jeu yi mhm. na trop parce que seen histoire bu commencé ba tey ñu ci 2023 y de choses à raconter li ñu war a raconter bëri na trop tu vois ak aussi en fait peut-être comme sama genre ñii ñii ñii bi ñu dooree commencé gis avènement bi yàggul mais yéen ba ñu ko yàgg na depuis 2011 2011 peut-être kii mu ngi nekk xale la peut-être tu vois peut am na affaire yu bëri yu jàll tey ba ñu yegg si fii ñu yegg si fii donc loolu mooy dëgg li ngay wax léegi nag a chaque fois da jàpp boo nekk ci benn affaire da ciy jàpp ba nga xamante ni bu beneen génération bi ñëwee je pense que léegi avant ñuy commencé émission bi sax ñu ci waxtaan. Mhm. bu beneen génération ñëwee dina fi fekk loo xamante ñoom aussi dinañu mën a basé wu ci loolu dem de l'avant nekk. ci misaal bu ndaw bi may njëkk a dem salle je 96 ah tu vois. 96 96 te salle de jeu yi loolu benn affaire la. loolu ay voilà ah. de jeu parcelles yeeg yooyu noonu. te pour man xam naa révolution wu salle de jeu. ni ñu commencé bëre biir Sénégal. Mhm. ñoo développé peut-être passe-passe boobu noonu. mais ñëpp amuñu woon jot. parce que nit ñi dañ doon moytu mhm. affaire yi dafa cheroon jënd matériel ak yooyu noonu. courant bi tamit xam nga yu bëri da koo ko waroon sóoraale daal. alors man autant man je me souviens man maa ngi dëkkoon ay 2004 2005 boobu maa ngi dëkkoon Nioro. Mhm. je me souviens Nioro mu ngi nekk ci frontière Gambie bi ak euh, Sénégal. Mhm. waa côté Kaolack. Mhm. dama naan obligé man ak sama papa ak euh, sama mag bu ko dem ñëw ba Kaolack pour dem salle de jeu. parce que amoon na foofu ay ay consoles yu ñoon teg noonu da toog gis oto bi. ni ñu taw flipper waaw flipper waaw oh. ah. dañ doon dem sama papa bu doon dem di fayeeku ji euh, fin du mois. na bëgg ànd ak moom. Mhm. pour dem jël quelque une heure de temps deux mhm. dem ci daal yi dugg quoi. Mhm. alors pour dire que ne y' a de choses yu fi yàgg am mais tey booy am na lu ñu fi fekk loo xamante ni ñu fi nekkoon ko liggéey. quand même ñoo ko liggéey waaw ñoo ko euh, euh, je pense que ne waxtaan ci jeu neex na nga koy jouer di kori kori ji d' accord mais am na lu nekk ci ginnaaw. tu vois c' est pas parce que damay wax ne nag damay privilégié sama mbokk bi te ñoo waral lépp non <laughs> mais au buñ ne jeu rek am na loo gis tey ba mun ko di ko manipuler mais ñi ngay manipuler noonu dafa am ñu ko defar donc loolu nag mooy développeur ñi nga xamante ni ñoom ñooy développé jeu yi ñoom nga xamante ni ñoom ñooy con def conception bi wax naka la mën a naka lay demee nan kañ nga war a gagné nan nga war a def bu gagné man loolu su ma koy xalaat rek déjà sama bopp bi day métti parce que xam naa ne développement moom dafa compliqué nga bugg def développement jeu moo gën a compliqué alors euh, Thierno nga xamante ni xam-xamu xarala yi bees yi dañ ko démocratiser maanaam ñëpp a mhm. ciy jot tey jii nii même mun nga dem ci tuto yi sax di xool ay affaire euh, xool naka la ñuy defee ay jeux en bëggoon naa xam day fan la Sénégal toll ci wàllum defar jeu vidéo surtout damay dégg ñuy wax ay studio jeu est-ce que mhm. studio jeu yooyu nekk bi Sénégal est-ce que dañuy créer ay jeux wala dañuy euh, jaayaat ay jeux rek. Mm. wala ñoom dañoo recruter ay développeurs ñu koy créer. Mm. fan la ci Sénégal toll daal bëgg naa ko bëgg naa ko xam franchement. d' mm. donc comme ni nga ko waxee au début pour na gis et développeur jeu com compliqué na. naate même pour jànq soit et. Mm-hmm. pour def gis benn formation boo xam ne si jeu vidéo la. Mm-hmm. day day jafe naate même. comme ni ko waxee ñoo bokk doon naate man son formation génie logiciel la pratiquement si. kii formation bi yëpp ma def je ne pense pas que am na benn cours boo xam si côté jeu vidéo la souvent nag jeunes yu bëri su ma daan ñëw day ñëw day bëgg créer jeu mais doo xam fooy fooy commencer en fait te man tamit man si catégorie boobu laa bokkoon na te début bi donc dum jéem a xool na laay créer jeu mais après xaw ma woon nag fan laay fan laay jaar benn jour nag la sama benn xarit présentément benn benn jeu làmb ma xool ko après mu gis ne benn sénégalais moo ko moo ko defar léegi après ma moment boobu fekkoon na maa ngi nekkoon si affaire animation ak yooyu. Mm-hmm. ayu ma nag côté design. wala dara mais mm-hmm. donc c'est donc c'est xawoon sawar quoi léegi. Mm-hmm. si côté boobu nag mu motiver ma jëm ko approché pour xam nan la nan la def ba réaliser que même bu dul sax si côté développement soit mais intervenir si côté design bi en même temps di jàngal léegi après na si loolu mu motiver ma ma commencé soit et YouTube ak yooyu après m woon nag boobu may terminer sama formation licence je pense ma gis ne am na benn boîte jeu vidéo bu mu foo Kaifo Kaifo Game Studio te euh, kii créé kii nii defoon jeu lamb moom moo présenté en fait euh, kii kii moom studio léegi loolu na motivé ma appro approché kay foo après bien intégré ñu wan ma état bi yi may suivre pour yooyu pour commencer comment commencer développement bi mais si si début moom pour gis genre pour xam nan lay développer jeu compliqué woon na mais instant moom si moment bu mu toll nii affaire yi mooy commencé commencé dox nanka nànk si si na te récemment même am na benn game hub bu ñu créé si côté DER bi. associé ak Kayfo Game Studio amaat beneen studio Maseka boo xam ne ñoom dañuy former ay jeunes pour ñuy pour ñuy créer créer jeu vidéo léegi nag si si kii xam naa instant yi pour jeunes yi ko bëgg a def mën ne approché yooyu ak yenn événement yi ñuy lancer parfois et genre game jam et occasion la pour jeune jeunes daje soit peut-être si week bi durée week bi nag créer vite fait benn benn jeu les pour jeunes yi xam ne ñoom bëgg neen soit jàng xam métier nan la nan la demee ñoom mën neen mën neen rapproché wu si si si côté boobu mais xam naa ne si si moment yu toll moom mhm. ci affaire yi mooy avancé avancé avancé bu baax mais ce que est-ce euh, euh, Sénégal mhm. am na benn studio boo xamante ni tey ñu ngi créer ay jeux. Ah. boo xamante ni ñu ngi koy distribuer fii ci Sénégal. pour que gars di ko jouer. est que tey am na jeux yu ñu créé présentement yoo xamante ni existe na yu ay Sénégal yi créé mettre ko ci marché bi nit ñu di ko jouer. exact donc Carrefour Game Studio moom loolu loolu mooy mooy rôle am exactement donc. jeunes yi yëpp di liggéey si si jeu et yoo xam ne fii lay formé woo. si partie technique bi développeur yi ak yëpp si université yi nekk fii lay. jànge jàngee léegi ñun moom si si côté boobu lay yëngu na te jeu yi yëpp ñuy créer bii si visé mooy genre. créer ay jeux yoo xam ne contenu yoo xam ne fii fii lañ inspiré woo daal suñu suñuy histoire ah mm. peut-être décor yi tamit décor yoo xam ne soo ko xoolee xam ne jeu fii nga def fii fii nga defee donc loolu loolu mooy objectif bu Kayfo si yenn jeu yu ñuy yu ñuy créer dañuy gis ne yenn lieux yu ñuy utiliser et lieux yoo xam ne fii la fii lañ ko fii lañ ko jëlee quoi Sénégal objectif bi tamit pour motiver yeneen yeneen nit aussi ñu créer soit suivre même chemin bi kaay foo jaar pour aussi gën a gën a yëngal kii bi quoi industrie bi gën a gën a marché quoi. gën a marché quoi non dinañ dellu si yow léegi laaj la ay questions yoo xam ne ñi nga xamante ni moom affaire technique bi neex mu ngi leen jox ay branche tuuti nga xamante ni dañ mën a xam peut-être fan lay war a mën Euh, ci débat euh, dem ci Jean Pierre. parce mhm. que euh, am na Jean Pierre yu bëri yu ma la bëgg a laaj. Mhm. parce que tey jeu bi. Mhm. yow ak surtout Baba. <laughs> xam naa ne man ah, émission bi mi ngi door a commencé mais sama bopp bi dafa chargé sax parce que mu bëri question quoi <laughs> alors cest à ce que. wala ma waxee Sénégal day tuuti. Sénégal ak Afrique. man nag dama bëgg Sénégal man moo tax sax may def wolof teg déjà. Mhm, defuma beneen leneen suwaayli teg <laughs> defuma français teg non non. mais wolof teg mais en fait. Mhm. est-ce que tey Sénégal. Mhm. wala Afrique am na marché boo xamante ni. dina tax ñiy créer jeux yi di mun a gis seen bopp ci li ñuy def. tu vois euh, cest à loolu mooy question bi. voilà vas-y. ok non merci beaucoup pour question bi bon euh, balaa ñuy ñëw sax Afrique. mu ngi leen ne tey que euh, peut-être beaucoup de gens xamuñu ko quoi mais tey soo jëlee tout ce qui est industrie culturelle dans le monde nga jël cinéma nga jël musique et cetera aujourd'hui le jeu vidéo c'est la première industrie culturelle au monde. ah ouais. donc c'est-à-dire euh, chiffre d'affaires buy jeu vidéo di générer. Mmh. Euh, en mille vingt et par exemple c'est deux cent soixante et un milliards de dollars. waaw c'est la première. Mmh. industrie culturelle au monde. ak ay projection par exemple 2026 à 289 euh, milliards donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui dañuy fàtte ne que presque 80 même pour cent euh, des foyers dans le monde jouent aux jeux vidéo pour ce chiffre là paraît euh, chiffre boobu mun na mun na kawe par exemple mais c'est dû au fait qu'aujourd'hui ak développement jeu mobile bi aussi tey je veux dire que smartphone boo jël tey quasiment tout le monde a au moins benn jeu buñ ci buñ ci installé donc jeu mobile boobu mooy tirer euh, mooy tirer croissance su jeu vidéo soo jëlee marché africain tey mille vingt et un c' était sept cent trente deux milliards de francs CFA. donc et ça et ces sept euh, de francs CFA. Okay. ça ne représente que pour cent du mondial donc ça veut dire vraiment une très très marche. Mhm. de progression. Si, si. que a en mille vingt cinq y cent millions de smartphones en en Afrique. en Afrique gis ne que. Mhm.

quand même que pour les jeunes. Mais quand même, en Afrique, il a une base de 1 milliard quasiment de jeunes de moins de 35 ans euh, qui sont qu'on peut qui peuvent être euh, quoi sur euh, sur le sur le jeu vidéo. Et et, donc aujourd'hui, comme je disais, donc c'est euh, euh, pour pour les pour les pour les jeunes aujourd'hui, il faut développer en fait des formations pour développer donc les talents les locaux. il faut que nous tamit adopter ay modèle économique yi nga xam ne peut-être c'est adapté au pouvoir d'achat local des des des des des des joueurs et puis BER fait développer en fait hein, des des collaborations hein, avec euh, des partenaires donc internationaux pour pouvoir aujourd'hui euh, développer le jeu vidéo. Je crois que par exemple Kaifo, bon, vous faites partie d'une structure africaine, hein, avec vous alliez avec d'autres euh, d'autres acteurs du jeu vidéo. donc euh, clairement aujourd'hui am na benn euh, opportunité bu bu graaw pour que vraiment le le jeu vidéo puisse se développer euh, mhm. puisse se développer en Afrique quoi. ok ouais. mais alors alors ci benn affaire bu am solo. Mhm. mu yitteel sax. Mhm. c'est-à-dire tey su ma xoolee tey Sénégal. réellement. yemul Dakar. ci région yi. te bu ma demee ci région yi man des fois damay am damay xaw a choqué wu tuuti parce que damay sentir ne. ñun liñ tal ñoom taluñ ko des fois loolu lay sentir quoi mën naa jum nag tu vois ci contexte boobu noonu moom lay gën a waxee waxee sax quoi ne est-ce que tey jii nii tey bu ñuy créer suñu jeu yi wala bu ñuy def jeu yi fii nii Sénégal wala Afrique est-ce que ñu ngi ciy bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom tamit am nañ seen yeneen affaire yuñ tal mais cela ne veut ñoom duñ jouer de mais war nañ mën a inclure ci jeu bi loo xamante ni dina ko intéresser moom. ki nga xamante ni nekkul il est nekkul sax Dakar mais mu ngi ci au fin fond du pays quoi tu vois mais en mu nekk loo xamante ni aussi day répondre ak benn réalité boo xamante ni moom lay dund moom comme yaa koy wax léegi ne même décor bi da ciy jouer mm-hmm. parce que tey ki nga xamante ni en fait juste benn parenthèse ki nga xamante ni tey mu ngi nekk ci biir àll bi boo nga woon ko benn jeu boo xamante ni il voit que des choses bâtiment daf ko faire franchement moom déjà mu ngi États-Unis sax wala moom mu ngi biis wala nga nekk Vice bi nii dafa mel ni yaa ngi ci ghetto kii yi te te nekkoo fa tu vois mais est-ce que tey il n'est pas temps mooy fi may waxee ne est-ce qu'il ñu créer ay jeux yoo xamante ni wala jéem a réfléchir ci marché jeux yoo xamante ni dina permettre tey population bi en même temps ñuy fo mais aussi ñuy mun a jàng ci lu bëri ci ci ci ci ci fo boobu noonu aussi mm-hmm. aussi ñi nga xamante ni comme li ma ko waxee léegi ñu ngi nekk au fin fond du Sénégal tu vois ñu mën a aussi proposer leen loo xamante ni dina méngoo exactement ak ñoom seen réalité ak euh, voilà seen environnement ak seen i moyens ak seen possibilité ak yu demee noonu. Mm-hmm. tey en tant que koo xamante ne yow yaa ngi nekk euh, ci benn groupe bu mag tu vois et c'est sûr que vous réfléchissez plein sur plein de choses Orange moom yaa xam naa euh, dañuy réfléchir ci affaire yu bëri tu vois mm, mm, mm. mais est-ce que tey euh, wala sax personnellement yow xalaat nga ni tey yooyu noonu war nañ ko mën a développer avec accompagnement wu yenn euh, entreprise yu mel ni Sonatel wala yeneen a yeneen si si li nga wax ni c'est très très important aujourd'hui <clears throat> jeu vidéo en Afrique euh, un des piliers qui va pouvoir le développer comme ni nga ko waxee mm. c'est d'avoir des jeux yi xam ne c'est adapté aussi à nos réalités mm. locales mm-hmm. qui puissent parler euh, comme tu dis à nos populations euh, mm-hmm. à mon cousin qui est à Ndiafat là derrière Kaolack voilà mm-hmm. donc clairement aujourd'hui c'est un des premiers challenges et je pense que bon le collègue pourra en parler hein Skyfo bon ils ont développé des vous sur des jeux vous développez des jeux je veux dire, qui sont beaucoup axés sur le euh, sur sur notre culture euh, culture locale. Et aussi jeux vidéo aussi, faut dire que ça peut être aussi une vraie opportunité aussi économique aujourd'hui pour la jeunesse. Donc euh, on a une population très jeune. Je pense que c'est des compétences. Euh, si on arrive, euh, je veux dire, à les développer techniquement chez les jeunes, ça peut créer vraiment une nouvelle en fait économie du, du, du jeu. en, en, en, créant, je veux dire, des jeux vidéo qui seraient encore un peu plus, comme tu dis, hein, au-delà des GTA, Vice City, etc., des jeux vraiment qui sont au plus près de nos réalités, euh, de nos réalités, de nos réalités locales. Et l'idée aujourd'hui, bon, euh, pour nous, hein, c'est peut-être d'accompagner justement ce, ce, ce, ce mouvement-là euh, en partenariat avec des, je veux dire l'écosystème, que ce soit All Solo eSport ou Kaifo, mm -hmm. qui sont, vraiment des structures aussi qui sont intégrées mhm. euh, dans le milieu, Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre, il faut que moi. foog ma kii ci wolof bi quoi. non yaa ngi wàcc challenge bi de. waaw d'accord non non non dinaa yokk wolof bi dinaa yokk <laughs> dem noonu dafa tooñ alors ah, alors euh, man yow dama am question bu am solo bu ma la bëgg a c'est-à-dire. bu euh, ma yërëm. <laughs> non non solo la cest à euh, au niveau de Sen Game gis naa ne xale yu bëri tey jii nii tey jeu de leen intéressé tu vois preuve bi rek mooy kii taxaw nii. Hmm. mënatuma ko am fenn pratiquement. Hmm. tey day joué ba cinq heures du matin. sànq rek mi ngi may la quel détour yaa ngi dégg bu topp topp topp leen c'est-à-dire di adhérer ci li ngeen def tu vois naka ngeen xalaat ne yéen noonu ngeen leen mën a dimbalee ba nga xamante ni jeu bi dina nekk loo xamante ni dafay participer ci évolution ak yéen ci seen objectif ak yu demee noonu xam naa ne vous êtes conscient de cela yan man en fait je veux que nga expliquer ma exactement jeu boobu ñuy def noonu chaque jour passer du temps tak tak tak tak pare ñi bi dem toog aha gagné naa alors au delà de cela lan moo nekk ci biir ak nag ngeen accompagner jeunes yi ci seen évolution àdduna aussi. question bi nga posé question bu am solo la. Mhm. Euh, man damay commencer wax que ni léegi ci li ma seetlu jeu vidéo dafa am ñaari perspective maanaam ñaari jëmukaay benn jëmukaay bi léegi li ñu seetlu mooy jeu vidéo dafa nekk maanaam affaire um wàllum xew-xew mooy tendance. Mm-hmm. maanaam mm-hmm. léegi ni ngay seetaanee Netflix. Mm-hmm. ni ngay dégloo Spotify. mais noonu ngay jouer FIFA. comme sa gars yi xam nga flex daal comme ni ko gars yi di waxee. dafa xew damay jouer <laughs> FIFA baa mën sama koñ. booy bu ñëw dama lay dóor et cetera. damay jouer en ligne am na benn mot bu ñuy wax fut. dangay ngay créer sa équipe. xam nga bu manqué nga jël xaalis def ko ci biir pour jënd benn pële wala benn Maradona pour gën a ah defaral gars yi bagage. Ah gars yi waaw non mais yëpp am na ci biir loolu yëpp am na ci biir. Ah moom la genre doon wax sànq microtransaction. fay pour gën a équipe bi kii. donc delluwaat ci misaalu chiffre gi joxe avant muy ñëwaat encore ci deuxième point bi am solo. mooy uh-huh. aujourd'hui boo jëlee benn jeu bu mel ni FIFA. Uh-huh. FIFA dañ koy jaay à hauteur de trente six millions de copies par année. cette année moom xam naa demaat nañ encore 37 millions. Wow. même si dañoo subir benn dañoo changer seen tour uh-huh. nekk tour parce que dañoo euh, rompre seen contrat ak FIFA officiel fédération mm -hmm. de football. ok bi déclaré. Mm-hmm. que re recette yi ñu doon am. Mm-hmm. ci jeu FIFA bi. Mm-hmm. moo ëpp que ñoom événement football yi ñuy organiser ci monde oh, bi. loolu loolu xayma chiffre bu doy waar loolu loolu xayma moo tax nekkatul jeu. Ah te li leen waral séparation boobu ñu ñoom ñu taxale ko. Mm. mooy FIFA moo xëy laaj un milliard de dollars. éditeur jeu bi mooy studio bi développé jeu bi ñu naan EA Sport. gars yi bañ ñu def séparation léegi. jeu wu FIFA tuddutul FIFA EA Sport lu tudd EA FC. Ah. FIFA nag nee na moom day développé jeu boppam parce que xaalis bi ko doon kii noonu du ko bàyyi mu rëcc. <laughs> Ah pour wax leen ne rek ah, nekkatul jeu. chiffre yi dafa doy waar léegi ci jeu boobu business bu mag bu am solo la. li mu mm. doon wax sànq naan boo jëlee musique ak mm. cinéma ak fi mu toll. Mm-hmm. Avenger. Mm-hmm. Euh, ay direct mu direct xoolal ni mu koy mun a jaayee ak ni mu mun a consommer. nga boole leen. jeu vidéo du morom. ci loolu dafa doy waar. yu bëri woon ci bàyyi xel. ñu ñu ñu delluwaat ci deuxième temps bi wax naa sànq mhm. perspective bu jeu vidéo léegi xew-xew la mhm. jeunes yi dañ koy def ci seen vie bokk da ngay kii di jouer mhm. xam nga ñun sax ba ñuy nekk xale dañ naan làqatoog di pet peter ah, di def nangam ak yooyu mais léegi kii na deuxième bi mooy dafa am lu beneen xew-xew bu ñëw bu ñuy woowee e-sport mooy compétition jeu vidéo organisée bi ñu demee ba gis ni jeu vidéo dafa am ñu ci xarañ. Mm-hmm. am nenn ñu ci toll. et nekkatul juste jouer li ñu woowee casual en anglais mooy waaye yow da ngay fëy nii rek. tey nga jouer suba doo jouer. des fois mun nga toog un mois deux mois doo jouer non mm-hmm. léegi gars yi dañ koo def yoon maanaam sport la ci ñoom. ni ngay xëyee chaque ngoon nga sakk sa dàll yi ànd ak sa gars yi dem fubali. <laughs> noonu ngay ngoon nga dugg ci FIFA bi defaral gars yi noonu lay demee léegi ñooñu nag liñ ciy wut mm. mooy xaalis. liñ ciy wut mooy. Euh, ñu xam leen maanaam siiw nekk quelqu'un ah, liñ ciy wut tamit mm-hmm. mooy mën a am opportunité parce que ñu ngi gis ni mm-hmm. monde bi am na ay joueurs ñoo xam dañ leen di fay pour ñu jouer mm-hmm. am na ay joueurs yoo xam ni seen visa seen passeport dañ koo tamponné tamponné amul benn dëkk buñ dul dem du leen ko ubbil yow nga nekk aujourd'hui jour e-sport day mel ni yaa ngi nga nekk athlète wala nga nekk benn benn footballeur profession et cetera boo demee ambassade États-Unis nga ne leen compétition diw laa jëm biir États-Unis hmm. boo demandé visa ñu may la visa nga dem. parce que ñoom xam nañ fu mu toll non dagguma dafa mel ni àdduna bi man romb na ma parce que en fait man man man amoon ma vision boobu ci jeu bi ah. hmm. man bi may organiser émission bi sax euh, def naa ay recherche tu vois. Hmm. mais tollu ma woon sax ci niveau boobu. c'est-à-dire en fait tey. ni ma gisee ñi dématérialiser yenn affaire yu bëri. mais mhm. noonu la def ci jeu bi ah. noonu la def ci jeu bi parce tey dangay ngay gis ñu ne la benn euh, euh, Messi transféré nañ ko fële Neymar mais est ce que ñu dem ba à la fin jour. Euh, mercato ah gi am mercato gi am man am na sama benn jour am na ñu ko buggoon jënd ma bañ. <laughs> ndax mu ngi toog di joué ah. ku yàlla mooy xam naa saa war na ko xam. non waaw foog ma ñëw def loolu la <laughs> pour pour yeggali ci wàllum boobu noonu. ñun suñu role mooy dañoo dem ba ñun ñu remarqué ñaari ñaari aspect yooyu. ñaari yoon yi que ça soit ñiy jouer parce que tendance la que ça soit ñiy jouer parce que dañoo gëm ni affaire e-sport la maintenant nag bu ñu duggee ci wàllum sport dafa laaj xarañ dafa laaj tàggat yaram dafa laaj li ñuy wooyee practice maanaam mën a entraîner wu dafa laaj également kenn koo xam ni affaire bi da koy jàll léegi nag comme sport yëpp a ah, que ça soit mënoo xëy rek Sénégal am cinq wala dix quinze Sadio maane mënul nekk mm-hmm. donc dina am ñuy ni ñu koy waxee on certains qui sortent du lot mais dina am ñeneen ñoo xam ni ah neex na neexul mais faaw ñu continuer waat encore continuer ci ci góorgóorlu bi mhm. léegi loolu tax mhm. ñuy organiser ay événement dinañ def événement boo xam ni mhm. objectif bi muy am mooy juste dajale ñi nga xam ni jeu ou tendance la ñuy def def ay jeu yoo xam ni nit ñi dinañ mun a ñëw jouer tàggat seen yaram waxtaan dolli xam-xam dinañ def ay formation parce que gis nañ ni am na ñoo xam ne jeu bi intéressé na leen et ñoom pare nañ sax pour fay pour ñu former leen pour ñu gën a aay. Mhm. Sénégal aujourd'hui am na benn coach FIFA bu aay bu tudd mhm. Robert boo xam ni. Mhm. Euh, suñu benn joueur bu am talant bu tudd Deg Junior moo tax ba léegi ñëpp xam nañ ko. Robert c'est un docteur en informatique. day ah jàngale ESP. des fois ah day dem def cours ba pare. génn ay étudiants topp ko ni ko mais grand pardon yow yaay coach su Deg Junior mais grand da ngay joxe ay cours xanaa ci FIFA bi ak yooyu mais man bëgg naa nga kii ma. mais ana moom dafa nekk quelque koo xam ni mun munuñ ni am na am na lañ koy waxee sax am na lijaasa ci mbir mi parce que expérience tamit dafay jouer dafa daan jouer mu dem ba gis ni am na ay booy ñaari booy kenn ki Adex Adama Thiam keneen ki Mouhamed Thiam ñaar ñoo xam ne xamuñoon fu mu jógee au départ daal nekk seen kër di jouer jeu bi jaral leen su ma nee jeu jaral leen mooy yow boo tëddee di nelaw ñoom ñu ngi <laughs> yàlla def nag ñu dem ba aujourd'hui mun nañ ni ñoom ñu bokk nañ ci ñi ëpp ñi lekk xaalis ci bi ci e bi macha allah ci FIFA bi daal. ça soit ay xaw ma ñaata million la mais yàgg na foofu. ci montant daal ci ci ci kii. jot nañu aussi gagné ay trophée am benn respect bu ñu am Afrique am benn respect bu ñu am à l'international. macha allah léegi moom nag bi mu commencé di encadrer joueurs yooyu. Mm-hmm. dafa dem ba commencé di analyser di saytu game yi jeu yi mm. match yi bu jeexee dafay enregistrer match yi toog seetaanaat la bu seetaanee mu ni lii nii nii nii ak ñi nuñ ko defee woon baaxul peut-être que bu ñu ko defee dina baax donc ñun saa yi ñuy international wala Afrique mais bu ñuy dem xam nañ jour yi ñuy dajal xam nañ lan la ñu war a teg xam nañ yan équipe la ñu war a jël comme football rek ni ngay demee nga toog ñu jou euh, coach bi jël toog jour yëpp toog ñu leen seetaan leen vidéo bi équipe bi nii lay nii lay def nii lañ koy defee. amul benn secret moo tax bu ñu dee ñu ñu lu tax yéen waa solo da ngeen di gañ ak gañ ah li ma en am na benn émission ci coupe coupe bi la bu ñu gañee coupe d' Afrique bi def naa benn émission ak ay gars yi wala dañ doon waxtaan ci informatique ak technologie bi naka la duggee léegi ci jeu bi mhm. ah, mais bon bi quoi mhm. ak nan la ñuy analyser performance su mhm. pour mën di anticiper ci yenn affaires yu bëri quoi par exemple bu fekkee ne am na benn a am entre Sénégal ak euh, je sais pas moi euh, benn intelligence artificielle boo xam ne ni mooy permettre tey nga mun a analyser façon de jeu bi ba mun a sax ay ay ay ban nga war a kii pour mun ko gagner naka nga war a placer en fait ay robot yuy def loolu alors man ni nga waxee ni j'ai que ne et nii même chose boobu moom moo amaat fii nii quoi. loolu moo ay c'est c'est c'est eh, non nekkatul ay foo ñun dañuy am ay événements ñu organiser pour ñi nga xam ne dañoo bëgg jouer pour le mm. plaisir bëgg-bëggub jouer. Mm-hmm. moom ay pour. li ñuy bon bëgguma di utiliser bi mais créer du rêve. waaw maintenant créer du rêve bi eh loolu bi di gis ay perspectives ay yoon. il faut que ñu naan ah mun na am dara. Mm-hmm. ñu def ay événement mm. événement yi jot nañ ci sax collaborer ak Orange ci lu bëri amoon na benn événement récurrent bu doon ñëw bu tudd Orange Sport Experience mm-hmm. boo xam ne dañ ko daan organiser chaque année mm. day am ñetti jeu mm-hmm. léegi jeu yi chaque kii day am par exemple benn champion mm. ñu dem sax ba gën koo développer gën a joxe ay position muy am mm-hmm. ñetti champion premier deuxième troisième généralement li joueurs yi di gagner mun na tourner autour de un ba deux millions des fois ah c'est pas Ah, c'est pas mal nga def nga dem tournoi sa yaay daal la non bul joué da nga yàq courant nangam nga dem tournoi gagné cinq cent mille moo ah! fayal ko eh, courant fayal ko internet ah, ah! saa yi mun nga soo joxee dépense c'est pas mal <laughs> sama sama benn jour bi mu njëkkee gagné tournoi mi ngi am seize ans ndek junior uh-huh. tournoi orange la woon tournoi boobu dafa guddi ba dañ koy joué ba vingt trois heures mu gagné tournoi bi yaay ji bañ na ba sonn pour mu bokk bi mu ko wooyee mun ko yaay gañe naa un million fa ni ko man maay ñëw jël si <laughs> yaay ji moo taal otoom daw si ñëw jël si donc processus su création de rêve boobu ñu nekk di mm-hmm. def mm-hmm. dafay firndeel que ni ñu ngi góorgóorlu ci wàllu ah boobu ah ah mais tout en faisant attention Mhm. parce que association dafay responsable dafay am nu mu taxawee donc dafa am lu ñuy organiser événement yi dafa am benn benn degré de xarañ ak degré de nu ñu koy waxee de de nu ñu koy waxee de de de de maanaam de ay conditions yu ñu koy teg jeu bi dafa am règlement boo war a respecter parce que loolu mooy e-sport dafa am règlement amul dafa am ay arbitre dafa am ay ñuy animer affaire bi dafa am ay commentateur dafa am ñuy suivre affaire bi dafa am waa logistique am affaire yu bëri yoo xam dañ ko teg ci yoon teg ko ci charge loolu aussi dafay tax ñi nga xam ne ñu ngi joué mais peut-être que ñoom amuñu capacité wu gagné tournoi bi mun nañ ne ah xaaral man gis naa benn arbitre bu fi nekk gis naa benn coach bu fi nekk. gis naa benn commentateur bu doon mm-hmm. commenté. Mm-hmm, mm-hmm. mais yii ay yoon la. Ah, donc ça veut dire mun naa ñëw ñu former ma ci. ma commencé ko liggéey. donc ñu ngi ubbi également ay li ñuy wooye ay buntu yu ndaw. te loolu aussi dafa am solo mag la sax. du buntu yu yu mag la mag. te léegi ci international bi ñu ngi liggéey ak fédération internationale e-sport bu ñu adhéré depuis deux mille deux mille vingt et un boo xam ni dañuy joxe ay certificat mm-hmm. donc dafa am ay certification internationale yoo xam mun nga nekk coach mm-hmm. comme mun nga nekk arbitre mm-hmm. comme mun nga nekk nu ñu koy waxee euh, spécialiste ci tel domaine wala tel domaine et cetera wala mun nga bokk sax ci ay commission athlète yoo xam ni boo ko amee mun nga am ay événement à l' nga dem déposer foofu mun nga fa liggéey ay buntu la c'est top buntu yu rëy. parce que donc ñu ngi ñu ngi bàyyi xel jeunesse bi ci foofu noonu. mais aussi ci événement yi bu amee waxtaan day am. parce que dinañ am tout temps temps waxtaan ci hmm. jour bi lan hmm. ngay hmm. liggéey fan nga nekk ci lan ngay def et cetera yooyu noonu yëpp ci biir. donc am na ay ñoo xam ne ñëw nañ foofu ci tournoi yi. ñu ñu ñu daanaka waxtaan ak ñoom xaw leen xelal xaw leen orienté. ba ñoom aussi ñu gis ni waaw bu budul jeu vidéo bi mun na nekk leneen lu nekk en rapport ak moom. exactement donc nekkul loo xam ne kii la daal. day ni créer benn écosystème boo xamante ni tey y a fàttali tuuti jamono biñ euh, dama doon dégg Youssou Ndour ak yooyu di ko nettali bi muy wëy ñu koy aaye tu vois xamuñ loon ne wëy dina dem ba jur lii mais li tax tey mu dem ba jur lii moom moo ko liggéey aussi moom moo ci def fullaak fayda organiser ko recruter ay nit wan leen ne leen ok mooy rêve boobu rek ngay wax wan leen ne leen c'est pas parce que musicien nga ko mun nga nekk musicien ba pekk pare nekk milliardaire ne amee entreprise ainsi de suite muy mel ni aussi lamb bu njëkk nit ñi dañ naan bëree ñu leen di jox benn saako ceeb ñu yóbbu seen kër léegi da ngay bëri ñu jox la millions. Mhm. lamb ji passé xaw ma ñaata millions lañ leen fay. léegi sax wàññeeku na. parce que ñoom tamit. waay xaw nañoo sàggane lu bëri. exactement mais imagine tey bu ñu ko téewoon. Mhm. non mais industrie bu mag la. ba ci fecckat yi sax léegi dangay gis koo xam ne bu ñu njëkk daan fecc par plaisir mhm. léegi lan la ñuy def am nañ sax ay école léegi mhm. da ngay dem danse ba pare ku war a def clip ñëw recruter la fay la benn cachet mais donc du coup moi je vois la même chose mhm. ici aussi et je pense que tey ñu ko toppee dina mën a créer comme du nekk jeu kese mais benn environnement la boo xamante ni am na affaire yu bëri ci mën ubbee ko. Mhm. exactement écosystème la et perspective day nekk tamit. Mm. bu demee ba ci biir ñun mm. ambition bi ñu am mooy mm. organiser ay événements yoo xam ni. Mm-hmm. dañ naan événement mondial la daanaka pays yu bëri dañuy ñëw Sénégal. Mm-hmm. boo amee événement bu mag. Mm-hmm. dëkk yu bëri jóge seen ñëw Sénégal. aéroport. taxi yi. jaaykat yi. hôtel yi ñi nekk aux alentours de fi ngay defee événement bi ñooñu ñëpp seen économie dafay ci loolu excuse-moi juste pour euh, euh pour dëgg li baa wax yaakaar naa ne e-sport bi sax dina bokk ci JO yi les prochains JO dina am dina am euh, carrément une le e-sport a été validé comme benn sport olympique donc dina am ay ay yu fay dem pour jouer à certains jeux xaw ma nag yan jeux lañ sélectionné mais voilà donc Euh, clairement aujourd'hui bon euh, vraiment solo e i ils de de grands efforts fii Sénégal ñu ngi def vraiment ay ay jéego yu am solo e vraiment ñu ngi ci benn trajectoire bu nga xam ne bon demain comme nu mu ko waxee c'est la professionalisation des joueurs ah, oui, ça veut dire di nga am ay joueurs professionnels à l'image yi nga amee ay ay footballeurs euh, ay footballeurs professionnels ak ah. benn ligue mhm. avec des équipes mhm. ak mercato. Mhm. donc vraiment benn c'est c'est un écosystème à l'image de vraiment ce qu'on peut avoir avec euh, tous les sports de tous les sports compétitifs. Exactement. donc c'est ça vraiment quoi. waaw c'est ça non man parce que. depuis temps yëpp ñu ma waxee euh, sama jabar bu ma waxee waaye sa doom la bëgg ma ne ko sama doom day football ah mais léegi damay changer jeu def. damay <laughs> def may daf ci beneen euh, affaire boo xamante ni tamit ba léegi damay ñëwaat ci affaire technique bi tu vois ci Thierno c'est-à-dire euh, li ñuy wax ni yëpp tu vois cool c'est top c'est neex tu vois mais ba léegi am na ñu nekkaat ci suuf noonu comme ni ñu ko waxee woon léegi alors léegi wax nga ñu sànq euh, studio yi nga xamante ni nekk nañ Sénégal ak yi nga xamante ni ñu ngi koy def depuis quand mais tey jii euh, euh, tey bu ñëwee ci studio yooyu noonu yan profil la ñuy soxla en général pour que ñu mun a intégrer foofu noonu di développer wala def yooyu tey yow en tant que koo xamante ni yaa ngi nekk ci biir studio yooyu yéen boo leen recruter yan profil ngeen am na ni peut-être jeune neex na leen bëgg nañ ko di ko créer di ko développer wala di ci indi ay innovation wala am nañu ciy xalaat tey yan profil yéen euh, ngeen di rechercher euh, boo leen di euh, def ay entretien wala boo leen bëggee recruter ay ñu bees. donc si si domaine jeu vidéo bi pratiquement profil yu ñuy yu ñuy soxla. Mhm. je dirais que ça dépend si si type de projet. Mhm. ndaxte souvent benn jeu bu simple peut-être mën nañ jël benn développeur wala benn designer bi defar genre éléments yu ñu soxla. yi ak yooyu après kii bi parti kii bi créer mécanique de jeu ak yooyu développeur bi ñëw créer ko mais am na si yenn projet yoo xam ne moo moo gën a mag dañ soxla lu si mel ni genre profilu game designer en général ñoom ñooy toog ñoom ñooy xool mécanique yi di am si si jeu vidéo ñoom ñooy définir règle jeu vidéo yi yooyu yëpp ñoom ñoo koy définir si benn document boo xam ne document game design lañ koy wax léegi c'est à travers document boobu pro programmeur bi su moom di nga xam lan la ban lan la war a def designer bi tey moom su moom di nga xam ban rôle les les jouer kii bi tey si sama doom dégg si kii bi épisode yi njëkk yi yéen wax ne invité ñoo xam si son bi lañ liggéey. ñii di animé ak yooyu yëpp ñooñu ñëpp mu dañ kii dañ intervenir si si projet. donc à travers documents yooyu ñun di xam yan étapes la ñuy suivre ak yëpp léegi fii bu dee ñun suñu café après souvent lu ñuy tàmm di def mooy dañuy def benn séance brainstorming. Mhm. boo xam ne suñ ko suñ ko defee ba pare dañuy am ay idées ay idées de jeu. Mhm. ñu wax idée de jeu la moo si dem après ñu xool ñii ñii di intervenir si mhm. si projet. léegi après séance brainstorming boobu idée yu ñu siy jëlee après game designer bi moom moo koy approfondir léegi moom moom mooy ñëw léegi. defar si document bi expliquer kii wi yëpp ñu war a suivre pour pour réaliser mais souvent profil yu ñu soxla principalement ñun développeurs yi designers yi. ok ah, alors boo nee design boo bon en fait. tant que koo xamante def ah, ma ah. développement jeu. waaw man suñu rek mooy koo xamante ni mooy. Euh, defar design site ay internet mais yéen ba en ci jeu bi yan façon design la quoi. la et artiste 2 wala 3D ñoom mën nañ ah. defar yenn élément donc ñooy lay doon wala soit animateur ñoom des fois ñoom di intervenir na te mhm. genre soo créer modèle 2 wala 3D ba pare après soit am na kenn ku war a ñëw animer ko ah. wala ñun tey ñun su su ñëwee programmeur yi tey souvent mën ne mën nañ ko def tamit. xamul tax loolu intéressé na parce que ah. dafay def benn lien direct ak épisode yi ma def a def ñu doon expliquer la mooy 2D 3D ak naka la ñuy animer image yi demee noonu moo tax c'est hyper mm. na tey épisode yooyu sama ko doon suivre di loo doon expliquer tamit c'est important na tey directement su ma déglu aussi damay fàtte na li tax mu important mooy que profil yooyu yëpp ñoom ñëpp dañuy war liggéey liggéey ensemble quoi donc ku nekk à sa sa côté na te développement jeu vidéo aussi dafa dafa dafa compliqué na te en fonction de type de projet profil yi di intervenir di béy avant même podcast bi kii ñooy ñooy doon wax si jeu Assassin's Creed bi ba wax ne genre le fait que c'est à travers jeu yooyu ne jàng histoire donc même à travers projet yooyu c'est sûr que écrivain peut-être dañ intervenir donc ça dépend si si projet na tey fee gars ñii di ñii di mën intervenir si jeu vidéo profil yi mën na mën na différent en fonction projet si si si et je pense que tey gars yi nga xamante ni intéressé wu nañ pour développement ay jeu yu demee noonu mën nañ jege genre studio yu mel ni Kayfo mais en fait à part am na yenn studio à part Kayfo fii studio yu mu fi remarqué gis pratiquement na te mm. souvent projet yu ñuy gis soit ba yenn jeunes ñoom ñooy proposé yenn yenn projet ak yooyu mais à part Kayfo gis mais souvent kii bi tamit Kayfo lu mu def mooy que am na benn benn group bu bu mu créé fi Afrique bu tugg euh, Pan-African African african pan Gaming Group boo xam ne daa regroupé waa PAK ne daa regroupé studio yu yu nekk Afrique yoo xam ne les souvent soo amee projet aussi mën nañ liggéey ensemble na te man si projet yi ma liggéey yu bëri ak PAK bi li ma remarqué mooy mhm. studio bu nekk dafa am forum quoi ah. ku nekk am na foo xam ne moom foofu la gën a ay par exemple waa su su may lim comme genre benn studio bu usiku bi xam ne Kenya la nekk mhm. ñoom sooy xool côté game design dañ dañ si aay dañ ay si si côté bopp soo xoolee yeneen studio yu mel ni et Leyte Arts ak yooyu ñoom côté artistes yi eh, artistes ay lañuy am ñu tey ñu côté technique bi tamit souvent foofu lañuy ñëwee intervenir si côté technique bi si affaire lépp loo xam ne si programmation lay doon ak yooyu souvent ñun moom si côté boobu moo am nañ si e profil yu baax mais sob rek damaa sob rek nag moo tax ma laaj bi <laughs> euh, développement jeu yi yan langage ngeen faral di langage yi mën na mën na différent ñun moom souvent lu commencé woon utiliser mooy benn éditeur bu tudd Unity 3D. Ah. léegi nag langage bi ñu utiliser foofu C sharp la. Ah, C sharp mais ça dépend comme moteur de jeu yoo xam ne comme Unreal mën na utiliser e C plus plus. Hmm. amaat na yeneen jeu yoo xam ne peut-être mën na utiliser ay JavaScript ak yooyu yëpp. donc langage yi en fonction moteur yi tamit ça dépend mais. mais du compliqué comme par exemple soo xësee ba maîtriser benn éditeur. Mhm. soo demaatee si benn. Mhm. facilement mën na jël ay repères natte day nuroo te si côté jeu vidéo aussi man si sama expérience li si li ma si kii du langage bien utilisé du si man du loolu moo am importance mais côté algorithme. Ah. comme par exemple mhm. algo. soo xësee ba xam logique ku. nooy créer jeu rek. soo demee si benn éditeur langage bi amul problème yow soo xësee ba xam algo bi utiliser pour créer comme benn mécanique boo xam personnage bi day déplacé wu wala yooyu xam na logique bi nga utiliser ba pare après yow li si des mooy traduire ko si côté langage bi. si si euh, que bi may njëkk commencé def épisode yi euh, podcast bi biñ duggee ci programmation rek algorithme la njëkk def premier épisode avec euh, Elias Waliba quoi donc premier en te boobu bokk na ci épisode yi ma gën a marqué parce que dañoo def épisode ba pare après euh, il paraît que sa maman moom yàgg na gis doomam bi di def informatique muy liggéey chaque jour di wàcc pendant des années mu xam li muy def pare que xam ne daal informatique lay def mais informatique après on sait pas mais bi ñu defee épisode ba pare Elias dafa expliqué ci biir lan mooy algorithme mu ne algorithme mu ngi mel ni rek nga dugg sa waañ bi di togg ceeb xam nga doo ñëw di togg ceeb teg bi. jël ñàmbi jeeg jëpp jën ji rek dugal ci ah, ah. dafa am process da ngay njëkk def ndox bi ndox bi tàng tuuti nga door diwlin bi damaa mën a togg ceeb na ah, nga def diwlin bi tu vois après nga def loolu baaral sóor yooyu yëpp dafa nekk ci biir alors bi yaay ji dégg loolu kon lii mooy algorithme même man sama yaay déglu na épisode boobu après sama yaay bi ñu déglu épisode bi daf ne ma ah yow kon man mii chaque jour ma algorithme ma ah, bien sûr alors donc du coup moo tax épisode boobu ma marqué trop ci algorithme yi mhm. i boo xamee process bi rek après li <laughs> dañuy yaakaaroon informaticien ay milliards lay fayeeku et mooy ñu réparé ordinateur yi. ordinateur bu yàqu nga dem parce que am am ay jamono daan naa nekk ci yëngu-yëngu ak yooyu noonu daan jaay ay CD antivirus léegi fu ma demaat nga am problème parce que virus sonaloon na Sénégal yëpp loolu moom suñ ko wax suñu ñamoo dara léegi fu ma demaat jaay la yi pare ñu neen ah waa ji moom informaticien la ma jàppoon informaticien la ci boîte yi boo fi nekk nii boo ne informaticien ngi dañu fa ah, na ah. ah, yow bu machine ñu woo tëbee ñu woo tout quoi. mais bon kenn bu amee problème ak slide powerpoint bi sax yow. ñoo ñëw voilà <laughs> non mais boo ñàkkee chance ba mënoo ko dañu ah. xamul waaw informaticien non mais c'est hyper intéressant alors dañuy dem rapidement parce que je pense que ñu ngi ci cinquante huit minutes te par léegi tey émission bi jeex mm. alors tey promotion wu jeu yi Jean euh, euh, tey naka nga xalaat ne noonu lañ ko war a defee fii ci Afrique promotion promotion jeu yi quoi ok. promotion euh, promotion bon en fait euh, je pense que promotion yi en fait mm. c'est il faut que ñëpp il faut ñëpp jàpp ci ah je ouais. Euh, il faut que gouvernement yi état bi jàpp ci mm-hmm. euh, pour mettre en place ay politique nga xam ne c'est favorable pour promouvoir industrie bi pour jàppale des structures par exemple comme Kayfo nga xam ne ñu ngi yëngu ci dans ce domaine la et qui font travailler quand même euh, des jeunes sénégalais donc il faut que état bi xool nu mu leen mun leen mun a nu leen mun a accompagner Euh, aussi côté éducation aussi, il faut qu'il qu'on puisse développer des programmes de formation, je pense spécifiques, d'accord. Peut-être en partenariat même avec yenn yenn structure de GIE pour mën a développer des programmes spécifiques pour bon euh, créer je la nouvelle génération de Euh, de, de, de joueurs. Hein. Et puis bon, les entreprises, hein, à l'image, euh, par exemple, de, de Sonatel, hein, ouais, qui, voir comment aussi accompagner, mm -hmm. je veux dire, cet éco, cet écosystème-là mm -hmm. qui se, qui se, qui se, qui se développe. Et, et, et donc voilà quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. C'est, c'est les gouvernants, l'État, euh, je veux dire le secteur éducatif et puis les entreprises notamment qui évoluent donc dans les euh, dans les technologies, dans les telcos pour accompagner vraiment ce ce ce ce ce mouvement là et permettre le le développement de. tey tey bu ñu doon wax ne tey euh, boo doon a lim ñaari problème yu gën a ngand ci industrie jeu bi en Afrique. Mhm. lan lay doon tey loo xamante ni buñ ko réglé woon tey yaakaar nga ne eh, dinañ dem ci kaw ñaari problème rek. ñaari problème rek bon je pense que. Euh, le principal, le principal problème aujourd'hui pour le développement du jeu, peut-être, c'est le coût d'accès au jeu. ba léegi quand bon y a quand même certaine une certaine barrière par exemple si si njëg bi ça reste assez cher donc peut-être essayer de réduire euh, peut-être euh, le coût d'accès à ces jeux-là et puis aussi développer ñu dooleel ñi nga xam ne ñu ngi euh, développer des jeux locaux aussi comme Kaifo. Donc je pense que euh, aujourd'hui, comme on dit, hein, euh, euh, je veux dire, on est ouvert euh, à tous les jeux qui viennent de l'international, etc. Il y a nos blockbusters, ça vient de l'étranger. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de voir comment favoriser euh, cette création locale-là de jeux pour que les gens puissent approprier quoi et pour que ça puisse vraiment aussi donc euh, se se se, se développer quoi. ok macha allah ça c'est mm. mm. ah yow lan nga xalaat ci loolu euh, si si man moo am na yenn problème yoo xam ne comme genre yenn contraintes yoo xam ne gis na mooy que. Mhm. le fait que soo développé comme par exemple soo utiliser benn éditeur bu mel ni Unity na développer ce jeu ba après soo koy war a publier soit si store yi ne dem Play Store wala App Store. te instant soo xoolee contrainte bi gën a mag mooy genre soo xësee ba développé ba pare mënoo inclure ay genre achat in-app si si biir si biir jeu yooyu ne ne soit Play Store wala wala App Store mais loolu c'est fini Sénégal problème boobu loolu loolu lañ mais si yeneen dëkk yi peut-être di mën inclure genre e et achat wala yooyu mais instant yi li mën utiliser mooy que genre inclure et publicité si si te loo loolu souvent du mën na bañ a rapporter dara donc loolu si si man benn benn contrainte bu bu mag la et aussi le fekk que souvent yenn université doo fa gis genre benn formation boo xam ne si côté gaming mhm. moom la Jean-Pierre wax léegi peut proposer genre et structure yoo xam ne ñoom si si loolu orienté moo tax si kii bi comme benn solution ñu proposer genre game hub yi souvent tamit di proposer ay genre genre game jam pour peut-être aider jeunes yi ñu ñu former aussi si métier si métier jeu vidéo ok ok euh, alors alors alors même question bi laa lay laaj Baba aussi c'est-à-dire euh, tey jii euh, promotion wu yi surtout yéen li ngeen def muy yi tu vois ak naka ngeen yaakaar nan nga war a defee promotion bi pour que mu gën a am doole mais aussi bu fekkoon ne am na ñaari problème yoo xamante ni mu nga ko distinguer yan lay doon ci jeux yi nga xamante ni moo nekk tey moom nga ci écosystème jeu bi Sénégal ak Afrique. waaw man xam naa sama problème moo gën a rëy <laughs> moo gën a kii premier problème problème mm-hmm. euh, mu naa ni euh, organisation la. Mm-hmm. ak ràññee reconnaissance. ok su ma nee euh, reconnaissance ak ràññee xëy na peut-être tubaab nee na nul ne prophète chez soi parce que aujourd'hui boo jëlee association Sen Games en Afrique on est daanaka bokk nañ ci ñi gën a xarañ mun nañ ni sax mooy peut-être association bi gën a xarañ ci li muy def ci ay activités ci ay événements. et lu dul mun naa ni ay fédération que ça soit fédération euh, égyptienne bi wala fédération marocaine wala peut-être ay dëkk yu ñu gën a avancé comme Afrique du Sud ñi xam ñu ñëpp moyen ñooñu peut-être ñoo mun a def ay événements yoo xam ni daanaka ñun dinañu jaaxal ci ci gis-gis ci bët ci organisation yëpp daal ak ci ci doole donc euh, reconnaissance boobu dafay plus commencer ci état bi parce que su ma nee Sen Games mi ngi fi depuis 2011 daanaka. Euh, ñu ay. Mm, novice daal nekkuñu ay como daal ci mbir mi. yàgg nañ di di di pousse. Mm-hmm. donc am na lu ñu fi bàyyi. am na lu ñu construire am na fu ñu yóbbu Sénégal aujourd'hui ba am nañu ay joueurs yoo xam ni maintenant c'est des professionnels am nañu ay contrat gagné nañ ay tournois ils sont très respectés macha allah donc jot na daal vraiment état bi gën ñoo gën a bàyyi xel ñun nag dinañ bind suñu lettre yónnee bind suñu kii yónnee pour ñu gis. Euh, peut-être que tamit laajtewuñu ay noona ñu jox xaalis. Mhm. te loolu lu war la. waaw non non c'est normal. te loolu lu parce que liggéey nañ ko. Mhm. loolu moom dama koy wax. bien sûr donc euh, loolu mhm. bokk na peut-être ci benn problème majeur bi nga xam ne ñu ngi ci nekk di jéem teg ay jéego yombul. te tamit toll nañ fenn foo xam ni worof danaan lu sotti am borom. waaw yàlla day def ngay liggéey ci benn domaine ba vision am ci gis-gis am fenn foo ci tollu ba mu sotti ba commencer avance nga gis ñeneen ñëw. Euh, ñun nag amuñu problème mu liggéey ak ay nit mais dañuy bëgg tamit di segg dañoo bëgg di liggéey ak ñoo xam ne ñoo bokku gis-gis bokku gëm-gëm bëgguñu liggéey ak ñoo xam ne ñoo bëgg utiliser ay nit jëfandikoo leen def seen i defit ba pare dem seen yoon loolu amalu ñu njëriñ mais dañoo nekk ñoo xam ne tamit dañoo ànd ak euh, passiance mm-hmm. dañoo ànd ak euh, histoire parce que histoire dafa am solo mun naa ni am na ñu bëri ñu fi nekkoon nekkoon ay promoteur dévénement événement jeux vidéo organiser nañu ay événement yu bëri Sénégal benn ñaar ñett 2017 2018 amoon na doole ñu bëri ñëw nañ mais ku ne am na loo ci jàng après naan gis nga secteur bii nii boo ci bëggee lekk xaalis xaw nga xaar du léegi nga ci lekk xaalis même malgré li ñuy def nii yëpp donc au lieu de nit ñi di teg bët li nit ñi di nekkoon fii di ko def nañu gën a sóoraale que ni ñi fi nekk di ci liggéey seen seen gëm-gëm ak seen objectif du ñoom seen bopp communauté bi parce que bu doon ñun ak ñun rek mun nañu xëy dem defi suñuy liggéey am nañu ay compétence am nañu ay lijaasa mënoon nañu defi leneen non non dañuy ni non attends mm-hmm. jeunesse gi ñu gis mm-hmm. mun na leen a jàppale mm-hmm. mun na leen a orienté te passion bi bu ñu ko convertiré def ko liggéey def ko am-am mu nekk koom ci ñoom wala mu nekk ay objet perspective bu liggéey jàngal leen nu ñuy nappee ba ñu mun ci mun a am leneen ak leneen pour man loolu mooy dooleel mbir te Sénégal faaw ñu góorgóorlu tamit que ça soit état bi que ça soit administration que ça soit ñeneen yi di di dooleel ay projet innovant parce que li ñu def te dafa innovant musu fi am demal jëlal Afrique de l'Ouest gi yëpp man maa la ko wax doo fi gis benn joueur professionnel bu ñuy fay salaire par mois Sénégal rek quoi muy solo sport am nañu cinq jours yu ñuy fay salaire par mois depuis trois ans léegi yàlla nag xëy na peut ñu am lu leen fay des fois ñu ñëw ma leen gars yi fay <laughs> naaj bi daa tàng ko ñu ko gars yi mais des fois ñoom ma leen mi fi mais ñoom tamit xooluñu xaalis bi macha allah que dañoo jël affaire bi def ko seen seen yëf macha allah xam nga mhm. gis ni daal mbir mi ñëpp ci war a jàpp pour mu jëm kanam loolu laa gis ci ki leneen li mooy il faut que ñu gën a continuer di organiser événement pour jàppale jeunesse bi bi ñu yàlla suturaalee ñu am solo sport Euh, ak ambassade de France bi ñu jàppale avec quelques partenaires yu ñu jot a liggéeyal cetera yàlla dafa def ñu am local bërëb bu ñu mun a liggéeyee yàlla def tamit ñu am ay xarale logiciel logistique noo ko mun a wooyee yu ñu mun a kii ñu ni comme ñun yàgg nañ di def ay événement di fayeeku nit ñi te biñ naan fayeeku nit ñi sax da nga fa daan ñëw mais da lekk <laughs> maa ngi fàttaliku ñu bëri na wax naan ah événement seen yem daan neex parce que da ngay am sandwich <laughs> non mais DMV bi am solo non kii xam na événement bi mu la war a invité waaw foofu da lekk ba ah, <laughs> léegi ñu ni hmm. dañu war a contribuer ci li ñuy woowee démocratisation de l'e-sport naka bu ñuy def dañuy fexe mu nekk gratuit ku ñëw doo fay maintenant ñun suñu objectif nekkul utiliser xam nga des fois nit ñi dañ naan la gratuit jël la sol loolu nangam utiliser la comme ni ñu waree non ñun dañuy def gratuit bu la neexee sax bul inscrire waa nga bàyyi ba jour bi nga ñëw comme que da ngaa ragal say données parce que léegi protection données bi tamit xaw na kii nga ñëw bu ñu inscrire parce que li ñu soxla mooy juste woo pour la événement bi tey jour bi la nga ñëw nga ñëw <clears throat> ñu wan la savoir faire wala nan la ñuy organiser des fois sax am ay jours yu proposé wu bëgg def lii wala bëgg jàppale ci lii te loolu lu rafet la lu ñuy faral di saluer parce que yàlla dafa def on a une boo xam ni day jokkoo dañuy interagir et cetera loolu dafa am solo et cetera ñu ñu ngi ci liggéey ci projet boobu ak ville de Dakar ñu ngi ci liggéey également ak benn agglomération bu nekk France bu ñu naan Grand Paris Sud boo xam ni objectif bi euh, démocratisation e-sport mi ngi ci que e-sport accessible ñëpp mun cee jot. parce que ñu bëri yàgg nañ wax console daa cher dëgg la. PS4 daa cher ñëpp ko mën a man de jënd ko peut-être tamit fii 100 méga. du ñëpp a ko mën. non orange du ñëpp ko mën du ñëpp ko waaye. waaye waaye li gars yi naan ku bëgg akara. Ah, da ngay ñeme ah, ah. loolu ci la bokk. Mm. bu fekkee yow. <laughs> ah man de des ñu wax ma ne ma facture facture bi ñu ngi koy waaj a couplé sama nekku ci man <laughs> bu fekkee yow wóolu nga sa doole wóolu sa xam-xam. Mm. wóolu sa manette comme ni ko gars yi di waxee. ah boo demee góorgóorlu boo gañee tournoi bi di nga mën a fay yëpp. loolu rek la donc ñu ngi jéem créer daal mm. loo xam ni mun na njëriñ jeunesse ki mun na am avenir ci jeunesse gi mm. tout en se disant que ni tamit du ñëpp ci nara nekk joueur professionnel ah loolu mu munul nekk moom jarul sax nekk fi di xool mais bu fekkee nit ñi mun nañ ci am liggéey nit ñi mm. mun nañ ci gagner xaalis nit ñi mun nañ ci gis seen bopp en terme de li may wax sànq création de rêve on du rêve moo koy wax tout le temps c'est loolu kii la mm-hmm. maintenant solo plateforme la mm-hmm. boo xam ni peut-être mun nañ ñi privé na privé wul. Mhm. parce que ñun ñoo ko bëggee noonu. et que léegi daanaka sax moo ëpp doole seen kii suñu bëree dañu solo solo solo affaire boobu jaaxal bëggoon naa la ko laaj léegi sax avant ñuy terminer euh, différence bi am entre solo. Mhm. may gis solo seen game lan mooy solo. alors solo mhm. benn club la. boo xam ni seen games moo ko créé ci biiram. Ah. voilà donc mun nga nekk association am ay projet solo benn projet mais dafa mel solo bi ëpp doole léegi de. ñun ñoo ko bëggee noonu. ah loolu ah, seen game moo ko jur quoi. parce que bi ñuy créer <laughs> suñu club bi dañ ñu woon ah ñun il faut que club bi am fu mu rayonné am fu mu toll. Mm-hmm. ñu dajale ay benn mbooloo parce que man dama yàgg parcelle dama doon fréquenter ñu doon graphe ñu doon mm. design ñu doon mm-hmm. break ñu doon defar musique xanaa war nga xam dëmm graphe euh, waaw xam naa ko mm-hmm. xam <laughs> keneen ku tuddoon ñebe ku ñuy wooyee Altimus kooku moo nekkoon sama directeur artistique bu ma doon liggéeyee benn agence de com ça c'était en 2013 2014 ma ne ko grand mm. yaa njëkk defar logo Sen Games ba nga koy defar xamoo ñu sax da nga dégg gaming parce que da nga daan jouer yi nga macha allah rénové waat encore logo ma ne ko grand man jour bi mooy am budget yaay mm. defar sama logo projet. Oh, dama koy wóor wóor ba gis ko ni ko ah jot na ñëwal. Ah, donc bi ñu commencé créer logo bi ambition wu vraiment def un truc africain. Mhm. ak couleur chaude yi ak mhm. yooyu noonu. def très beau logo très beau logo effectivement. cette charte là ak mhm. énergie bi ñu ci def. ak équipe bi en tout cas bi liggéey ci affaire bi man dama ni non lii il faut mu rayonner. donc moom la ñuy jël teg ko en avant. maye stickers jaay mayoo bi ñu njëkkee defar suñu mayo ñëpp ko gis naan non may may dof la. <laughs> ñun ah sax xalaatuñu woon ni maye bu ko defaree dinañ ko jaay mu xaw a kii. Ah parce que 100 lañ njëkkoon génne. Ah ñu génne 100 mu tombé période kaan. faf yàlla def sax ñu gagné kaan bi. oui 2022 bi. ñëpp naan noo maye dafa rafet. léegi danga nga naan dox nit ñi di célébrer di daw di yooxu Sénégal gagné na nga doon gis nit ñi di sol maye solo ma ne noonu li munul ne. <laughs> finalement on est de ñu jàll ci 100. Euh, euh, uh-huh. ba 300 maillots vendus.

da d'adhésion parce que mm. biir Soro am na salle de jeu mm. am na peut-être ay programme de formation donc les gens yi nga xam ni dañoo bëgg dem foofu jouer passer du temps waxtaan ak kii et cetera mun nañ ko am mm-hmm. ñu ngi tamit liggéey ci ay yeneen projet ay yeneen programme ay mm-hmm. même ay collaboration ak Orange wala Samsung et cetera yoo xam ni ay activation la te loolu aussi mun na njëriñ jeunesse bi mooy objectif Solo Solo laa nag mooy rêve bi mooy rêve bi mais justement man j'avais si tu peux yan yan jeu ngeen di kii euh, sur quel jeu vous êtes en ngeen di kii en compétition. c'est FIFA et quoi il y a d'autres jeux. alors on a décidé ci sélection yi. de mm-hmm. Mm-hmm. d'aller sur les jeux populaires yi nga xam ni mm-hmm. mun nañu am benn présence. parce que ñaari souci le Sénégal doon am. mooy accessibilité aujourd'hui e-sport bi xaw fermé. ci circuit yi maanaam FIFA c'est très fermé. mais amuñu choix il faut ñu dem ci parce que mooy jeu bi gën a siiw ci monde bi. Ah, euh, FIFA c'est très fermé mooy lan. c'est très aujourd'hui Sénégal on a des talents ñu dàq jouer FIFA on a des consomateur yu jënd FIFA ak yooyu noonu yëpp di connecté wu kii et tout. mais éditeur de jeu bi ci boppam sur sur son international maanaam ci xew-xew bu mag bi muy def Sénégal mënagul aujourd'hui participer boo buggee participer da ngay wut VPN wala nga dem ci euh, France wala Maroc parce que y quelque quelques pays Afrique yoo xam ni ñoom rek ñoo ci mën a bokk. ñu mhm. mënaguñ ci bokk. cette année par exemple bi ñu bëggee suñu jour bi bokk dañ ko obligé yóbbu France mu dem foofu def un mois pour mm. mun a compétir. am nañu fii quoi. voilà maanaam qui permettent le jeu en ligne. dafa am lu ñuy woowee. Euh, CDN euh, nu ñu koy waxee sax euh, affiliation. affiliation léegi pour l' instant Sénégal ne est pas encore affilié man nag xaw ma laajte nañu parce que dañuy continuer di laajte et cetera dañuy gëstu di xam lan ñooy critères yi. lan moo ñu teree bokk est-ce que compétence la. est-ce que dañoo war a gën a kii parce que mm. peut-être que Nigéria. 200 mm. millions de personnes. moom du wax wax foofu FIFA religion la fa. Ghana <laughs> vraiment très loin par rapport à des Maroc aussi c'est un royaume ak mm. yeneen ak yeneen ak yeneen mais Sénégal lan moo ñu manqué parce que bu dee tournoi Afrique FIFA lépp lañ gagné. donc bu fekkee am na ay dëkk africain yu bokk war nañ war a mën a bokk. bu dee mm-hmm. consommation bi aussi ñun xam nañ ni. pour l'instant chiffres yi quand même. de mm-hmm. te ñu ngi ciy liggéey. ñaata nit ñooy jënd FIFA di ko consommer di ko jouer. mais tey <coughs> ban ban ministère moo mën a taper fort pour que loolu ñu mën ko accompagner ci ban ministère ngeen dépendre ci. Euh, normalement sport la war a doon. mais loolu c'est une question boo xam ni fédération de football. mën mhm. na ci intervenir parce que mhm. am na coupe du monde FIFA. Ah. bon même si là en ce moment y a des parce que FIFA kii séparé woon nañ. Mm. mais chaque année da doon am ñaari joueurs da ngeen def ay qualifications. Mm. ñaari joueurs yu ñuy sélectionné. au niveau de la fédération de football ak association bi nekk en local et ñoom ñooy représenté Sénégal ci benn tournoi mondial oh. boo xam ni 2v2 la. Mm-hmm. maanaam da ngay ñaari nit ñooy toog téye manette. Mm-hmm. kii contrôler joueur contrôler ñu joué. loolu loolu nekkoon na kii maintenant ñu décidé nii dañuy dem ci jeu Euh, combat yi parce que c'est des jeux yoo xam mhm. ni tournoi yëpp c'est ouvert dès l'instant que tu as la possibilité. Euh, Street Fighter euh, exactement parce que au début on avait Street Fighter après on l'a changé pour aller sur Tekken après on a décidé d'aller sur un jeu boo xam ni mooy Guilty Gear Strive d'ailleurs on est finaliste mondial sur le jeu là ce qui est ah voilà lu lu lu yéeme dinaa rapidement mm. ñu décidé également dem ci benn jeu bu siiw c'est le mooy jeu bi gën a siiw ci monde e-sport mm. Mm. ñu boo xam ni juróomi nit ñoo koy jouer pour ku nekk toog sa ordinateur di contrôler benn personnage léegi jeu objectif la da di dem ci benn arène am noo leen di xeexee ba kii récupérer ay tour ba gagné. noonu lay demee ce qu'on appelle les MMO. les euh, ce qu'on appelle les MOBA. MOBA c'est différent du MMO. exactement. Okay. am également beneen jeu boo xam ni on avait remarqué qu'on avait un excellent potentiel mais on n'a pas eu l'accompagnement de fédération de basket malheureusement mooy NBA 2 que su ma juumul avec le Maroc ñun ñoo baax équipe cette année nag y a eu des choses am na ay affaires yu am et cetera malheureusement sa s'est très très mal passé parce que mm. ñi waroon jouer joué wuñu ok loolu ñu ngi continuer également di ci ñaax di ci góorgóorlu di jéem a jokkoo ak bi pour loolu pour mm. mun mu mun a changer mm-hmm. parce que encore une fois il faut que ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbir mi pendant mm. des années xam ko xam ñu liggéey ci mbir mi sinon duñu avancer non non mais en fait man na yaakaar naa loolu problème Sénégal la Cheikh tey mu am ñu en ñu am ñu am écho lii am na xaalis am na avenir. non comme c'est ce que je veux comme comme nu mu ko waxee rek lu soti am euh, kii comment dirais-je en fait. am borom. je veux des gens qui travaillent dessus depuis des années euh, quand tu vois les chiffres que je donne les aiguise les appétits et c'est pas forcément l'appétit des gens passionnés uh-huh. comme euh, qui mais des gens je veux dire aujourd'hui qui sont à la recherche parce qu'ils voient qu'il y a un gain derrière donc c'est ça c'est normal que voilà maintenant aujourd'hui c'est pour ça que tout le monde en parle parce que comme comme mu koy à la mode ouais. en fait même ampleur ou jeu vidéo entre guillemets tout ça e-sport gisaguñ ko sax quoi sa à dire on est vraiment sur euh, une trajectoire ki bon d'ici dix ans bon ça va dans les dix prochaines années ça va exploser non, non, donc mais, les mais, gens l'ont commencé di di positionner quoi excuse-moi excuse-moi excuse-moi excuse-moi excuse-moi ah non mais c'est normal mais continue parce que d'ici dix ans tey yéen mhm. seen jëm bopp nag ngeen yaakaar ne noonu la affaire bi di si dix ans ci kanam fan ngeen xalaat gis seen bopp normalement. question bi nga posé doy <laughs> man nag man maa man li gars yi di faral di wooye monsieur perspective parce que damay gis lu sore. exactement. mais en fait euh, yaakaar naa am na ay euh, ay affaires yoo xam ni bu ñu ko moytuwul. Hmm. en tout cas ci Sénégal ci boppam ci ni muy doxee. mun na yàq lu bëri ci ay secteurs. Ah, du sax secteur donc artu la quoi da ngay artu quoi. donc artu lay gën a nekk. Mhm, donc pour man il faut que ñu xool ñi nga xam ni c'est des dañoo yor ay structures fortes yoo xam ni taxaw nañ établi yoo xam ni am nañu ay nit ñu ko bëgg parce que tamit nit ki lu mu am am cofeel ci benn mbir bu poussé ba pousse ba pousse ba gis ñu ngi koy tëj ay buntu et ñu ngi koy tere mu jàll. fa passer à autre ah, loolu yoon la loolu yoon la ci ñëpp parce mhm. nit ku ne tamit am na fenn fooy toll man peut sama doole may na ma depuis mhm. fukki at ak juróom maa ngi ci sport bi mhm. di ci saytu di ko gëm nekkoon naa sax ci ay entreprise di leen wax ci lan nekk di def voilà maa ngi fàttali bi may njëkk a wax ci waxu jeu vidéo ak sport université la woon dañ ma doon retaan ah naan leen maa ngi liggéey ci association gaming ngaa gars yi di la fo mhm. léegi. du ma ne sax dix ans plus tard mais aujourd'hui ñooñu ñëpp léegi xam nga dañuy am benn taxawaay parce que dañuy mhm. ñëw di def ay témoignages. Mhm. si si naan voilà affaire bi moom ba mu koy gëm. wala ba mu ciy nekk ak ay nitam. ñun peut-être yaakaaruñu woon dina yegg fii. te aujourd'hui xam nga nit ñi dañuy gis dañuy am benn misaal dañuy gis tukki ñu foog ni tukki mooy tekki. waaw exactement du tekki. mais am na lu muy firndeel. te tukki bi li waral juste que mooy ñun bu ñu demee. Mm. ñu ngi def promotion wu Sénégal. surtout li ñuy liggéey fii nii. surtout suñu joueurs yi surtout suñu communauté bi. Mm-hmm. pour que ñoom aussi ñu am opportunité. Mm-hmm. cette année par exemple yàlla def nañ yóbbu nañ une délégation de huit personnes en mm-hmm. Roumanie ci benn coupe du monde. te loolu ñun ñoo jël lépp en charge état bi laalu ci dërëm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu koy def mais mais nag war nañu xoolaat dëkk bi mais mais pour faire rapide pour man sur les dix ans. Mm. gis naa euh, benn pôle boo xam ne mi ngi nekk di contrôler e-sport bi parce que amal na leen njëriñ loolu tamit mi ngi contrôler sax monde bi instant bi xam naa yeneen ci bàyyi xel. mooy ah, Arabie Saoudite. ah oui mm-hmm. jël nañu pouvoir football bi. pouvoir mm-hmm. attraction monde bi. Mm-hmm. e-sport bi da leen ñor lool. Ah. d' ailleurs suñu président fédération e-sport bi ñu adhéré. Mhm. mooy le prince saoudien bi nga xam ni il a investi huit mille huit milliards de dollars sax boo leen bëggee dans le parce que ñoom dañoo bëgg jouer naar dafa bëgg jouer de manière très naturelle. Ah te ñu ngi nekk di def ay jéego yu am solo. ci e bi coupe du monde bi dañ ko organiser événement yu gën a mag foofu lay xewee et cetera. Mhm. te loolu aussi peut-être que ñun Afrique dinañu njëriñ parce que ñu ngi mhm. ciy liggéey. ñu ngi pousse ñun niñ ci mën a pousser au niveau mhm. africain ak yooyu noonu. pour ñu am ci wàll. maintenant pour ñu am ci wàll nag il faut que ñun ci suñuy dëkk tamit ñu pare. te su ma pare mooy maanaam am accompagnement bi war. ne serait-ce que bu fekkee euh, accompagnement privé bi aussi mun na ñëw. jël parce que loolu pour man moo ëpp solo. instant bi fi ñu toll nii bu ñu munee am également accompagnement France rek pour mhm. man loolu aussi beneen doole la mhm, tamit mhm, te incha allah man am naa yaakaar man je pense que Sénégal bëri na ñoo xam ni am nañu compétence ci affaire bi que ça soit ci développement bi que ça soit ci organisation pour mun a aller très loin le Sénégalais de base c'est quelqu'un de très intelligent macha allah maintenant le problème nag mooy suñu jeunesse bi encore une fois euh, <laughs> ak système bi sax lay wax ci boppam <laughs> confrontation bi nekk di am ak yooyu noonu buñ franchement man dama kontaan trop ci épisode bi ñu def nii tu vois pratiquement jeex na tu vois mais en fait li ma gën a intéressé neex ma mooy que dañoo boolante communauté développeur ak partenaire tu vois et je pense que tey ñoo ñoo nekk acteurs yi gën a mag bon invité wuñ fi koo xam ne mu ngi ci d'accord parce que état moom da ngay ree ba tas tu vois ñoom ils très compliqués en général loo leen dugal le plus souvent day tardé sax des mais ñun comme li c'est-à-dire bu flamme bi tàkkee te je pense que flamme bi tàkk na instant bi nii euh, ku déglu émission bi wala ku gis initiative yi ngeen di def et tout ça dina gën a am benn appétit comme man fi ma toog nii man je vous dis sincèrement man mm. appétit baa ngi fi si mm-hmm. xam naa li ñu may wax fii jëndal console ba sonn may bañ ma ah du ma ko jënd mais yaxaa naa dinaa ci commencer réfléchir quoi mm-hmm. mm-hmm. mais je pense que tey loolu moo am solo et man objectif ba lépp lu nit ñi foogoon ne lu compliqué la wala lu diabolique la wala loo xamante ni amul njëriñ wala te te mu nekk laal affaire technologie laal affaire yi rek ñu fexe ramener ko à un niveau boo xamante ni ki gën a nekk xale da koy mën a comprendre ki nga xamante ni sax dañoo foogoon ne dañ ko ci foogoon dañ ko ci beddi sax day mën a comprendre mais aussi da ci mën a gis boppam mhm. tu vois donc tey jii nii parent bi nga xamante ni mënul gis doomam muy mhm. jouer chaque jour mhm. xamul ci lu mu nekk moom war a mën a accompagner xale boobu a jàng leçon mais en même temps muy développer passion ça aussi c'est important man loolu mooy objectif émission yi may def nii nga xamante ni ñëpp dañuy am benn Euh, idée boo xamante du nekk idée refus total. Mhm. mu ngi mel ni démb përki démb maa ngi woon benn rajo xaw West African rajo ñu ne waaw en fait on parle d' intelligence artificielle may leen non mais intelligence artificielle lu baax la. Mhm. mais c'est utilisation bi ko nit ñi di defee moo bon. Mhm. wala li ko nit ñi di penser moo bon. mais innovation ci boppam. c'est c'est lu am solo la. mais nag ni niñ koy jëfandikoo nag mooy problème damay joxe souvent exemple paaka. te doon ko créé c'était pour dagg ay jën ak ay yàpp ak yu demee noonu mhm. mais da ngay gis na mais donc nit moo am problème mhm. donc tey ñun parents yi euh, nañ jéem a xool naka lañ mun a accompagner seen suñ doom ci seen passion tu vois mhm. man mii commencé ci man dama rakk ji day nekk di jouer des fois mu ne ko bu tëyal machine bi ama tëri tu vois <laughs> mais en fait en fait dafay conscientiser nit tu vois ci yu bëri nga xam da mm-hmm. ngeen mën a comprendre et franchement pour cela mm. maa ngi ni remercier bu baax a baax instant bi guddi na ni ñëpp a ngi ci week bi tey samedi la xam naa ne instant bi mm-hmm. jaboot gaa leen ni xaar et tout ça tu <laughs> mais maa ngi jégalu bu baax a baax ci li guddee aussi mais di leen remercier di leen bàyyi aussi kenn ku ci nekk jox mot de la fin euh, lan la ci wax ok <laughs> merci merci beaucoup vraiment Diago mm. ci invitation bi vraiment sur les échanges euh, très Et bon, comme on dit, euh, je pense que ce qui est bien, c'est que bon, on se connaît tous sans se connaître, quoi, entre ouais, guillemets. nañu ay à entamer vraiment des, certains échanges, que ce soit avec Ngom Kaifo, ou avec, euh, avec Solo. Donc, nous, nous échanger. Et je pense que c'est ça. Il hein. faut que nous disions, les, comme on dit, toutes les composantes, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'État, que ce soit les développeurs, euh, les acteurs aussi. jëm leen boole autour d'une table euh, jéem waxtaan ba voilà quoi au service euh, de voilà quoi de du du succès hein, du futur du jeu vidéo en tout cas vraiment très content euh, de cette invitation là et ouais. puis bon bah à très très à très très vite quoi. non yow da ngay ñëwaat <laughs> <laughs> d'accord hmm. donc. pour man comme genre li li Baba doon wax genre lu fekk ñooy nekk ci jeu vidéo mais c'est sûr que yeneen dëkk ñooy gis genre liggéey bi ñuy def comme invitation yi ñuy jot et kayfo et yenn événement kon et Africa Games Week so amee dañuy jot invitation donc loolu mooy wane gars yi ñooy gis liggéey liggéey bi ñuy def te jeu vidéo aussi souvent gars yi dañuy dañuy xool fo japonais comme li wax rek. e foo la yooyu mais. Ah, souvent soo soo xoolee ñi ñi defar sax du doon. Mm-hmm. carrément ay jeune mais si yeneen dëkk yi peut être et eh, <coughs> eh, mag nee gis. et eh, mag ñoo si ñoo si nekk na te expérience bi aussi de si de si jouer. te fii soo xoolee Sénégal comme lu mu wax jeunes yi jeunes yi bëri nañ fi dañuy suivre et série scientifique. jàng e mat ak physique ba ba sonn après pare doo ko doo ko donc je vous dis que jeunes yooyu peut-être su amee yenn formation yu leen di proposé xool nu intervenir si jeu vidéo peut-être si si futur mën ne am yenn jeu yoo xam ne comme GTA la gars yi di ko xaar. yoo xam ne na tey kii baa ngi fi culture baa ngi fi. comme li nga doon wax sens et et yoo xam ne suñu culture ay genre comme et la Joor ak yooyu yëpp. Mhm. yooyu yëpp mën nañu ko utiliser di si renco di di si suñu mhm. suñu histoire. Mhm. te ay jeux yoo xam ne soo koy jouer doo doo perte doo doo doo perte na te yaa si jàng na te sama baaba doom na ko wax am na yenn kii yoo xam ne anglais bi tamit sooy mën na mën na see jàng jàng lu bëri donc je me dis que du du du genre carrément est mais. suñ si investir fii ak année di ñëw mën na mën a joxe joxe ensuite merci aussi si invitation bi ak discussion yoo am tamit dañ si mhm. mhm. jàng lu bëri xam ne dina mhm. permettre aussi nit yi xam importance bi donc merci mais maa ngi remercier aussi euh, bu baax euh, Julien Julien Julien ak aussi Marie Pierre waaw franchement ñoom ñoo si jàpp bañ mun a invité la tey fii nii euh, je Marie aussi waroon na bokk sax ci invitation bi tu mais on s'est dit que en fait comme yéen ñaar pratiquement même kii profilé la et tout ça on a préféré moom ñu bàyyi ko benn épisode bi eh, ñëw tu vois comme ba léegi ñu ngi ci jeu yi tu vois parce que yii di ñëw dañuy waxtaan deeply ci affaire métaverse ak euh, man loolu sa waroon nañ ci wax mais bon li li duuf <laughs> <laughs> de la ah, fin daanaka sant yàlla rek di hmm. di remercier ñëpp ñu fi nekk que ça hmm. soit ñëpp ñu contribuer ci ci podcast bi di la remercier yow daanaka hmm. en tant que host ak ki nga xam ne vraiment yaa initiative bi Euh, di wax ni àdduna moom li am solo mooy euh, jotaay bu mun munti am da nekk lu ñuy wooye wax tànn donc ñu wax après ñu tànn ci wax bi bu fekkee nag li ñuy tànn ci wax bi après mun na njëriñ askan bi mun na njëriñ jeunesse bi dañ ciy sant yàlla rek bu fekkee nag comme ni ko faral di gars yi waxee li ñu wax tamit peut xam ni mata que nit matul mm, mm. mais kontaan ci jotaay bi lool lool mm-hmm. euh, li nga wax rek mm-hmm. daanaka ñi nga fi tànn ñëpp ku mm-hmm. nekk am na ci looy yëngu ci jeu vidéo wala ci looy yëngu ci contenu parce que jeu vidéo léegi dafa dugg ci contenu c'est du consommable tamit produit culturel la donc am na solo te yaakaar naa ub dina ubbi tamit ci ay ay ay perspectives ci ñi nar a déglu podcast bi incha allah dinañ ci gis njëriñ dinañ xam ni nekkul jeu du foo romb na foo fo. loo mën a fo te ku ko comprendre leen a daal ça c'est sûr ça c'est sûr donc euh, sant yàlla baax di. merci encore ci jotaay franchement merci beaucoup à tous les gars euh, ñu leen di jox euh, di daje ci beneen week encore ci beneen épisode ba léegi dañuy nekk ci saison onze bi ba léegi di waxtaan ci affaire réalité virtuelle métaverse ak réalité augmentée donc du coup épisode bi di ñëw aussi dina amaat beneen thème boo ko wax mais aussi dinañ wax ne aussi dinañ nekk ci yeneen am ci mercredi yi dañuy jox opportunité yenn entreprise yi ak yenn euh, initiative yi ñu ñëw di développer di wax ñoom li ñuy def tu vois ñu def un peu promotion aussi entrepreneuriat Sénégal ak euh, peut Afrique quoi tu mais bon bu ma nee Afrique nag des day xaw a compliqué parce que gars yu bëri du wax olof ci biti mais am benn problème ñu ngi ci yeneen initiative yoo xamante ni incha allah euh, ñu ngi koy développer ci yenn podcast yoo xamante ni dina nekk ci yeneen